mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak euh, TFM jàkkaarloo bi ñu am mbégte ànd ceek yéen may jéggalu ci baat bi sant tey bàyyil ma santale baat bi lëy ñeme naa commissaire trop commissaire Mandjibou Leye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou. alors commissaire principal bu ñu la woowee nga toog fii war nañ xam ni wàllu kaaraange sécurité la ñuy euh, waxtaane waaye ñu lëkkale ko it euh, ak taxaw seetlu ci askan wi. sociologue bi di Jibi Jaxate sama seexu màkk la ma am mbégte lool dalal ko ci plateau bi ñu nga a gise depuis màkk waaw euh, <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëñ bi maa ngi kontaan lool di la gisaat c'est vrai que màkk la màkk la ñu mujj gisee <laughs> euh, di ziar ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ci plateau bi Charles Pape Djibril Papis ak Bouba di ziar si mbokku téléspectateur jàkkaarloo di ziar waa Sénégal yépp di ñaan yàlla yàlla def sécurité def mm-hmm. jàmm. ci mm-hmm. réew mi ak amiin amiin moom lool loolooy sababu waxtaan wi. ndax gis nañ ni euh, fan yi mujj dafa takkarnaase ba jéggi dayoo moo tax ñu woo fi commissaire principal mu war a ñëw euh, laaj tontu dox suñu diggante mu leeral askan wi tamit euh, taxawaay wi nga xam ni autorité yi eh, namm nañ ko am ci wàll woowu Euh, commissaire Madjibou Leye ñu ngi lay nuyu. Abdou maa ngi lay maa lay fay. maa maa ngi nuyu. Mhm. sa waaw ñi ñi ma bokkal plateau bi yëpp. Charles professeur Djibril nga xam ne gëj nañ ko gëj naa ko gis depuis les mercredis de la police yi ñu doon def à l'école nationale de police nga xam ne c'était vraiment l'occasion pour les soumité de la corporation de débattre de sujets important sur la sécurité et sur la vie tout simplement. Mhm. di la nuyu yow Abdou di nuyu Bouba. di nuyu Papis di nuyu également sama voisin ji bi nga xam ne il est de Thiadiaye mooy Chérif Sène Badal hmm. donc euh, mbégte lool ma voilà mbégte lool ma jàkkaarloog moom ci ci ci plateau bi. Euh, ñu niroo bële yi. Pape Djibril dafa mel ni tenue. Euh, <laughs> tenue police dëgg la may la soldé. <laughs> rouge bi rek xaw ma woo jaaw jaax. nag Thiadiaye mooy. Ah, ah, ah. léegi nag Thiadiaye rekkatul ville bi. ah bon <laughs> kon yow ba ma la yónnee ne commissaire yi ñëw da nga dem assorti tenue yi ndax sa mbokk la. di sol lu nuru dafa baax. moom <laughs> alors commissaire euh, li ñuy waxtaanee nii mooy sababu ñëw bi ñëpp xam nañ li xew concretement yan réponse la autorité yi nar indi ci jamono ji fi ñu toll ci kaaraange mu nekk si cause ci askan wi ndax rey yi bëri na donte xeet xeetu rey yu bokkul la. mais ba léegi rek ci euh, jëf jooju la jëm grand banditisme baa ngi fi crime passionnel yaa ngi ci yeneen ak yeneen a ngi ci ban réponse euh, la police gendarmerie et peut-être euh, justice dinañ ci yegg ndax tamit sanction yi ñuy tegaate dissuasif na yan tontu la autorité yi nar a indi dama lay dama lay remercier Abdou ci question bi di la remercier également ci invitation bi di remercier aussi sama kilifa yi ma wóolu yebal ma ci pour ma teewal leen ci émission bi je pense que pour régler problème bi il faut d'abord ñu cerner ko c'est important il faut ñu def la cartographie de la situation criminologique au Sénégal pour ñu def ko y a beaucoup de facteurs centrifuges yoo xam ne dafay bokk ñëw en ligne de compte Sénégal position géographique bi mu am dafa tax mu nekk benn genre u ëpp à tout point de vue ci buntu géej gi la ñu nekk c'est la porte de l'Afrique te bunt la boo xam ne c'est un havre de paix également parce que on est entouré par une ceinture de feu boo xoolee un peu euh, la géopolitique sous-régionale euh, xool également la géostratégie ci yenn domaines yi xool également euh, euh, ferñeent yi fi jot a feeñ on parle de pétrole on parle de gaz ak publicité bi ci am côté presse nga xam ne on parle de milliards de barils de et yooyu dafay dafay dafay joxe benn gañaaru appétit rax ci dolli nag euh, ñu bokk ci benn euh, kuréel bu ñuy wax CEDEAO bokk ci beneen bu ko gën a ndaw muy UEMOA te yooyu yëpp am une garanti réyal de circulation des personnes et des biens démarche yooyu yëpp bu amee dafa ba pare nag ñu vivre ci benn territoire boo xam ne je ne sais pas Dakar ñaata pour pour cent la du territoire par rapport au reste du territoire national euh, dama koy bàyyi ak Charles nga xam ne xam na 0,3. nga gis ne à Dakar mais fi ñi 25 pour cent de la population. mu leer na ni promiscuité bi fi am. crime passionnel yi ngay wax dara warul ko dul loolu. ak également population yi en plus. attente bi ñuy am ci police gendarmerie yi les forces de défense et de sécurité population yi lan mooy seen contribution à l'effort de sécurité parce que Abdou jegewuñu sax les ratios les par rapport au standard international police recruté bu baax a baax a baax j'imagine également que gendarmerie en a fait de même mais ba tey c'est une goutte dans la mer parce que tout simplement euh, euh, euh, politique sécuritaire bi nga xam ne moom la ñu sas suñu bopp mooy additionnel yi koy accompagner ak personnel bi nga xam ne moo koy accompagner ñu ngi ci béy suñu waar nguur gaa ñu ciy dimbali bu baax a baax a baax mais il faut ñu poursuivre ko sur des années encore pour pouvoir atteindre ces ratios la tan que atteindre ñu ces ratios là du sotti maintenant ci euh, euh, euh, séquence temporelle boobu ñu nekk nga xam ne atteindre guñ ko lan mooy contribution population yi parce que généralement dañuy attendre lépp ci police mais da ngay gis koo xam ne par exemple am Mbour am na ci même à Dakar xale bu ñu jël yóbbu ko làqu ko quelque part à deux ans bu judd 2017 égorgé ko xam nga kooku lan mooy yaayam bu jëloon um le minimum de de surveillance day ko ci njabootam est-ce que dina mën a génn ba nit di ko fëkk di ko yóbbu di ko rendi am na mbuur am na dakaar Euh, ak sax léegi nag euh, autorap bi nga xam ne dafa xew léegi maanaam xëy créé sa benn euh, rap ne dañ ma dañ dañ ma dañ dañ ma dañ ma këf dañ ma yóbbu dañ ma dañ ma tëddee et cetera fekk sa copain nga àndaloon wala dara j'en parle parce que am na Dakar mais am na aussi am na Touba mais am na aussi Mbour le cas de Touba c'était ça mais am na aussi Mbour amoon na fa presse bi jotu ci élucidé mais man bi tantay ndaw si ñëwee ne ma sama jarbaat et la saison dañ ko yóbbu woo na woo na ma ne dañ ko kidnappé trois personnes ñoo ko tëddee dama ko ne amul fu mu nekk ma fa bàyyi boppam. boobu dafa benn dafa tax ci enquête bi am ay facteurs yu ma sukkandiku pour mën ko wax loolu. Mm. effectivement bi mu ñëwee le lendemain noonu exactement la demee. teewul wax na ay waxam mais bi ñu convoqué bi ñu defee enquête bi poursuivre enquête bi xool ces euh, relevés d'appel exploiter le journal d'appel on s'est rendu compte que kër copain la nekkoon à bi papa sax mu ñu tontu papa ma kii. néeg yaayu copain bi sax laa fanaanal parce que xale bu am 16 ans xamul nu muy seetee aw faram donc pour wax la ne am na yoo xam ne moom euh, c'est vrai mm, presse bi nag duñ ko mën a wax lépp aussi parce que parfois enquête dafay laaj benn pour pour l'intégrité de l'enquête et sa crédibilité et par rapport aux obligations légales qui pèsent sur nous euh, mënoo communiquer ci yenn dossiers yi loolu mooy waral surtout parfois euh, une certaine presse pas toute la presse di am benn gis-gis bi or gis-gis bi mën na uute parfois ak li nga xam ne mooy mooy la réalité mais ce qu'il faut simplement savoir c'est que police par rapport aux solutions police dafa am d'abord une politique globale de sécurité on a une politique de sécurité au Sénégal cette politique-là est déroulée d'abord elle est validée par les autorités ensuite elle est déroulée par les acteurs que nous sommes euh, politique sécurité boobu moo tax boo xoolee à Dakar pour rek jox la exemple Dakar mën naa la jox exemple Mbour mais je suis le commissaire central de Mbour mais Mbour indi mu fi tey je parle de de tout Sénégal mm-hmm. euh, boo xoolee Dakar li fi nekk ci ay alkaati mm-hmm. checkpoint yi sans compter hirondelle yi sans compter les brigades de recherche les hirondelles sans compter les brigades de recherche yi nga xam ne euh, sans compter les les brigades de recherche hirondelle yi mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañ leen di teg bërëb bu dara amee ñu ñu ñu ñu gicler rapidement dem rek la ko dellusiwaat ci bërëb bi Euh, am na ci ay motards am na aussi ci ay ay ay ay véhicules yoo xam ne ay ay ay ay véhicules yu ndaw la yu ñu am yoo xam ne sa san yooyu rek loolu rek mooy seen liggéey mm-hmm. euh, ñooñu ils viennent c'est des unités d'appui ah, à certaines de nos à certains à un certain dispositif qui est déjà mis en place les ah. grands carrefours à Dakar sont occupés euh, léegi rek bi may ñëw romb naa ci benn Euh, noonu lay demee jusqu'à des heures de de, boo demee dans la banlieue également la même chose sans compter maintenant euh, programme de maillage sécuritaire bi ñu am euh, à Guédiawaye euh, on a def nañu le 25 bi passé benn réunion de coordination ak le directeur de la sécurité publique ak tous les commissaires pour dégager déjà def un diagnostic des lieux Euh, évaluer euh, l'état de nos moyens, l'état de nos matériels et nos besoins dans une perspective plus ou moins réduite, euh, dans, un délai plus ou moins réduit. Bi ñu ko defee on s'est rendu compte que am na ci dans la banlieue dakaroise le commissaire central de Guédiawaye par exemple mi ngi mi ngi mi wax satisfaction ci commissariat yi ñu war a ubbi dans son secteur. Mm-hmm. am na ñetti commissariat yi ñu war a ubbi dans son secteur compte non tenu mm-hmm. moins personnel moom. ñun ñëpp sentir nañu suñu bopp ci personnel bi ñu bi ñu bi ñu bi am police léegi. recrutement euh, massif dafa créer benn surpeuplement boo xam ne c'est extrêmement intéressant par rapport à nos à nos à nos à notre mobilité. mais par rapport également à. Ah, ah. doyul du doy parce que damay damay wax te am policier benn policier ci derrière chaque population rek loolu du doy te defe naa ne euh, ratio yooyu kenn amagu ko même États-Unis amaguñu ko. alors euh, professeur pour ñu mën a dem ci chronique bi ñu wax nuñ ko gisee ban jàngat nga mën a indi ci problématique bi. waaw euh, maa ngi maa ngi remercier bu baax euh, commissaire ci intervention bu claire bi nga xam ni def na ko vraiment je crois une bonne maîtrise du domaine. Euh, dafa am benn aspect ou ñaari aspect yu nga xam ni rek peut-être bëgg naa ci wax un mooy euh, problème mu sécurité problème mu société yëpp la. donc loolu il faut ñu xam ne euh, société boo xam ne zéro violence tout se passe très bien idéal la donc c'est un problème qui se pose dans toutes les sociétés. deuxièmement sécurité dafa nekk lu nga xam ni bu fekkee ni réglé woo ko aussi tamit société bi mënul def benn pas en avant ci domaine yëpp moo xam politique la moo xam économie la moo xam donc c'est élément bu fondamental la pour société yëpp loolu moom d'accord nañ ci troisième élément bi nga xam ni commissaire wax na ko nee na famille yi euh, quelque part mm-hmm. xale bi nga xam ni euh, surveillance bi nga xam ni famille bi waroon na ko def surveillance boobu xaw a am lu mu sooxee ba indi jéeya xale boo xam ni dañ ko faat yu demee noonu loolu aussi euh, xam naa ni dinañ ci taxaw seetlu que famille yi am na ñu responsabilité bu am solo ci rôle bi nga xam ni moom la ñuy war a jouer protéger nit ñi mais tamit def ci nit ñi loo xam ni bu ñu génnee yenn comportement yi duñ ko am donc je crois que c'est important loolu ci famille bi ngay acquérir yenn valeurs yeeg yooyu nga xam ni daf lay waajal bi nga xam ni moom moo ci moom moo ci des moom mooy les population et la police foofu aussi li ma gis mooy euh, sécurité il faut que population yi dugal ci seen loxo loolu je crois que c'est excessivement important nekkul loo xam ni même bu fekkoon ne benn policier bu ginnaaw popul nit bu ne am na policier bu ci nekk population yi bu ñu collaboré ça va être difficile que ñi euh, les les les les agents de sécurité défense mën a réaliser ñoom li ñu bëgg yëpp. loolu lu muy tekki mooy je crois il faut ñu am une approche systémique et collaborative de la sécurité li ma bëgg a foofu mooy euh, sécurité dafa dafa xam nga nit koo gis. dañ ko mooñaaleeg benn partie boo xam ni daf koy pousser muy dem vers la violence nit boo gis dañ ko dañ ko mooñaale loolu. Mm-hmm. nit bi dafa am benn partie boo xam ni bàyyi ma la ci moom. mais heureusement dafa am beneen parti boo xam ni euh, à la limite la mooy parti bi nga xam ni moom la ñu yar moom la ñu def ci moom jikko yi ñu def ci moom bu ñu demee noonu parti boobu bu ci benn xawee sooxee moo xam ci mbirum koom la moo xam ci mbirum soxla yëngatu la moo xam ci mbirum li ñuy tuddee ñun inversion sociale xam nga nit yenn saa dina am trop plein dafay soxla dem seetaani boxe wala mu am sport wala mu am et cetera pour exprimer yenn affaire donc lu ci sooxee rek gisoo bu njëkk ba dañ doon def ay xaxar nit ñi génn wax. ñu ñu permettre nga wax lu la neex mais bu ñu paree ci loolu pare nañ ci. loolu ay ay moment d'inversion sociale la pour génne benn énergie parce que xam nañu nit dafa am lenn loo xam ne dafay exprimer wu. loolu nag euh, pour nga mën koo gérer il faut que mu am une approche il faut ñu il faut que sécurité population yi ñu xaw leen a intégrer population yi gën a ñeme ak gën a jege les policiers et les gendarmes. gën leen a ñeme gën leen a jege question boobu dama ciy taxaw souvent ci question par exemple accueil dans les commissariats et dans les brigades mm-hmm. accueil nit ki ñëw ñu dalal ko mu dal ñeme ñeme dem wax ak ñoom je sais effectivement. c'est un vrai problème. Euh, mais ñi ngi ciy def ñi ngi ciy ñi ngi ciy def ay effort. mais bien sûr. waaw on on on le contraire. Mm-hmm. mais ni nga wax. je pense que war nañ ci insister trop. absolument pour nit ñi sentir ni ñoom lañ fi nekkal. Mm-hmm. Euh, am na. bi war nañ ko gën a yokk. absolument alors man fi ma gën a wax est-ce que yomb na tamit askan woowu nga xam ni wax na ko lu bëri nga junj ne war na ci bokk maanaam boole laa ko mën woowee ñuy boole ñiy def ñaaw ñaawteef ndax yomb na ci askan wi. waaw léegi xam nga boole boo ko déggee mooy nga dem ci koo xam ni bokk ci nga dem di ko jaxase loolu mooy problème mm. mais bu ci bokkee mm. maanaam yow nga nekk ci kër gi mm. yow ñu bokk lépp ci biir kër gi ma dem wax diw c'est acceptable xam nga fan la acceptable fu ma mele ni dama def trahison dafa fekk nag boobu force bi dafa xaw a dafa mel ni lu extérieur xaw ba xam nga fi muy bëgg a mm-hmm. bu boobaa boo fa demee di wax dafay mel ni da ngaa boole boole boobu moo am problème moo tax ma ni bu fekkee ni bokk nañu approche collaborative laa wax mm-hmm. donc bokk nañu mbir mi dafay laaj nag ay waxtaan mm-hmm. dafa laaj euh, jaxasoo dafa laaj boole ci nit ñi ci mbir yi ni ñu koy doxalee ñu comprendre ko ba ñoom ñu nangu cee dugal seen loxo gën a ñeme ni lii ci ñun la bokk que man ma dem ci commissaire bi wax ak moom ma dem ci agent de police bi wax ak moom dafa mel ni maa ngi wax ak kenn ki nga xam ni ñoo bokk club de thé et cetera donc mu diggante bi gën a ratax ba nit ñi di parce que loolu mooy indi prévention loolu mooy indi euh, parce que en matière de sécurité aussi prévention daf ci am solo bu bu fekkee ni mbir mi dafa am ba pare ngay dabu dafay xaw a compliqué mm-hmm. mais comme lii raam buñ ko teelee gis wax ko ñu daal di taxaw balaa muy yegg ca ñam ba loolu moom mooy gën moom mooy prévention alors Charles waaw der c'est yi. tey moom tey moom ngeen baal ma question yu gàtt rek du ma ko mën <laughs> ay ca bismillah <laughs> vas-y balaa ma lay booleeg commissaire. <laughs> yow yaa siy des non les interventions c'est très très c'est sont boo xoolee commissaire lay muy développé nii à la limite tu es très fier d'avoir vraiment des cadres police demee nii ak suñu xarit le sociologue mais man suma problème peut-être mooy que. dafa am loo xamante ne ci man mooy expliquer lépp lu am booy ba boo xoolee le rapport du suñu rapport ñun sénégalais avec suñu propre environnement am lay jox benn affaire boo xamante ne kii junj na ko sànq euh, Diakhaté suñu professeur Diakhaté mooy suñu place yi suñu xool place de l'indépendance amoo foo jëm amatoo aire de jeu amatoo dara ça veut dire même de ton enfance ba ba ngay mag amul amoo cinéma amoo dara amoo loo xamante ne moom moo lay may ngay dund yenn dund yi parce que quand am na heure jàng am na heure loisir boo paree jàng da ngay def loisir bu njëkk ba amoon na UAS yi wala amoon na amoon na taux d'occupation boo xamante ne ba jàng la ba loisir nga ñëw nekk mag da ngay liggéey cadde loisir boo xoolee quel le rapport boo xamante ni lañ am ñun par exemple ak suñu environnement exemple bu gën a yomb j'envoie may daal rek na ñëpp a dem cette place de l'indépendance ce que c'est devenu ak lu mu meloon mm-hmm. sénégalais moo ko def xool benn rapport boo xamante ne rek dañuy may rek ñu xam suñu bopp yan rapport la ñu yore ak suñuy fas yu nekk si charrette yi ñu xoolee fas yi comme on les traite nga xool mu ne nit a koy def et la grandeur d'un pays se mesure à la capacité de ses citoyens ñuy traiter seen animaux fa ngay xam kan ay kan beneen affaire bi mooy suñu indiscipline notoire qu'est-ce qui fait que tey pour man dañu feebar commissaire am na lu mu wax sànq et je pense que dugguñu ci biir au fond dafa dem benn terme bu am solo promiscuité promiscuité foo gis promiscuité mooy indi viol xale bi fa lay découvrir moom mooy kan xale bu góor bi fa lay xam moom mooy kan moom lay xam ci loo xamante ni professeur mu ngi si ñëwaat et je pense que c'est très important mooy les pulsions le refoulement lu muy téye lu muy extérioriser lu muy intérioriser te yow xamoo si dara parce que nous sommes 30 à 40 si benn kër boo xamante ne fait moins de pour cent on habite dans pour cent donc autant mu am euh, juróom ñu bokk ndey ak baay ak yu demee noonu on est dans ça on toutes les conditions sont réunies sur 0,3 kilomètre carré kii lu mu tëdd de 0,3 pour cent de notre kii Dakar maanaam pour que violence boobu am commissaire expliqué na ko. quand tu sors un peu plus loin foo demee problème mu terre la ak euh, convoitise léegi nit ki lan mooy lan moo koy may mu xam là où il doit ak les limites ses limites pour man. dootul seulement affaire de sécurité pour man au-delà de ça il faut que ñu toog ñu waxtaan xoolaat suñu société qu'est-ce qui fait que cette société sénégalaise yi agressif tey qu'est-ce qui fait que un deux dóor naa la gaañ naa la après nit ñi ñëw intercéder pour ñu baal pourtant mun naa la bañ a dóor mun nañ bañ on peut ne pas être d'accord mais bañ la bañ la dóor pourquoi lève t la main pourquoi viole-t-on lan moo tax nit ki taxaw comme l'a dit la fois Malal ici wax ko choqué ñëpp mais dëgg mooy dëgg comment quelqu'un ne peut pas arrive à un certain âge mu am yenn problème yi je pense que dafa am loo xamante ne c'est de la psychologie dafay relever de la psychologie beaucoup plus que de la force de la police parce que foo gis police foo wax police police boo ko ressuscité dans l'histoire lan mooy police ak loolu yëpp mais il n'était pas armé avant le monde la donc c'est une cité on, comme me, me rappelle un grand à moi Racine Senghor c'est de la courtoisie c'est c'est de la civilité police mooy cité politéa moo doon administration mooy loolu yëpp loolu yëpp xam nañ fu mu jógee quand on parle des gendarmes ce sont des gens armés dañuy génn si dëkk bi bu ñu génnee ci bërëb maanaam bu ñu génnee ci Dakar ci ngay dajee ak gendarme yi mm-hmm. parce que àll la te àll xamoo loo fay daje mais qu'est-ce qui s'est passé pour nga xamante ne tey on est au point ba nga xamante ne tous les jours dafa am loo xamante ne moom la ñuy raconter dans ce pays là je pense que il fallait il comme dit le commissaire Lay am na ça ne relève plus seulement de de de, de la sécurité pour moi il y a une psychanalyse à faire de notre société. Charles nee na psychanalyse de la société Pape Djibril te ñu toll ci fu ñu war a psychanalyser société bi wala. man en fait lëppal ko. voilà euh, Papis euh, merci beaucoup nee na ndëpp ndëpp mooy wolof bi. jërëjëf commissaire li mu dëkk Fissel du tax ma défendre ko mais tey moom tey ñoom lay sola robu avocat. ay ci bismillah <laughs> en réalité je pense que ni mu posé problématique bi am na solo et que ñoom dañuy exécuter rek politique boo xam dañ ko décliner fi ci kaw. mooy tey jii sunu politique sécuritaire lan la lan la sunu ban vision lañ ci am. est-ce que prévision am na ci wala tax dañuy gérer rek yoo xamante ni moom mooy li teew ak euh, évolution bi mu am est-ce que projeté wu nañ tamit pour prendre en compte yenn mbir yi nga xamante ni dinañu arrivé ci suñ société comme évolution parce que tey jii ñoo ngi wax richesse yi fi feeñ ñoo ngi wax découverte yeeg yooyu yëpp c'est-à-dire que dafay imposer aussi ñu adapté wu par rapport ak ay besoins sécuritaire yoo xamante ni xëy na amuñu ko woon il y a actuellement forcément dinañ ko am mm-hmm. loolu euh, loolu bu njëkk bi loolu moo tax ma ne euh, la police et la gendarmerie dañuy exécuter une politique boo xamante ni dañ dañ ko dañ ko xalaat ci benn niveau bu gën a stratégique xëy na ñoom bu ñëwee à niveau dinañ ko bonifier xool faisabilité bi et tout donc loolu su ko waxee rek dugal naa moyen dugal naa budget dugal naa yooyu yëpp nga xamante ni moom moo leen di permettre ñu def seen liggéey convenablement loolu xam naa ne commissaire dina ci dellu siwaat mhm. effectivement il a un discours boo xamante ni c'est c'est c'est c'est diplomatique mooy que l'État est en train de faire des efforts pour man phrase boobu mooy <laughs> escroquerie bi gën a mag parce que souvent <laughs> foofu la ñuy dëxëj lépp l'État en train de faire des efforts <laughs> mais en réalité mais doyul en réalité souvent même effort yi euh, mën nañ ko fésal nii mais c'est bien nga nga nga fournir ay matériel ak yooyu parce que ñun tamit malheureusement société bi ñu nekk euh, dañu bëgg loolu loo xamante ni dañ koy gis mais ki nga xamante ni tamit moom moo war a doxal loolu muy agent bi nga xamante ni moom moo nekk ci tali bi muy ki nga xamante ni moom mooy confronter la réalité kooku aussi il faut que nga mettre ko dans des moyens yoo xam dina ko permettre mu def liggéeyam et je suis désolé il y a énormément d'efforts à faire dans ce sens-là que lu bare bari war nañ ko def euh, ci euh, prise en charge des ressources humaines bi euh, bu ñuy jalonné yenn saa yenn heures nga romb leen à un certain niveau surtout bu fekkee yaa ngi génn Dakar ci autoroute bi sa yaram day daw ñu taxaw di xaar parce que am na kilifa gu war a génn wala am na kilifa gu war a dugg ñu taxaw di xaar donc il travaille dans des conditions difficiles te homme de tenue yëpp la y compris mhm. les sapeurs pompiers y compris la police y compris la gendarmerie l'armée y compris l'armée mhm. a Mhm. loolu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy wàllu cantonnement bi foofu tamit y a beaucoup affaire à nga dugg ci ay camp fii Dakar tu as l'impression que en réalité li dañ ko waroon raser waat ko parce que c'est d'une autre époque yaa ngi dégg boo demee voilà fu ci bari ñoom ñi ñi seetaan kilifa yi xam nañ ne voilà y a beaucoup affaire dans ce sens la donc len loolu mooy côté état ak euh, côté kii bi beneen bi professeur Djibi Diakhaté wax na ko mooy culture dénonciation c'est-à-dire loolu responsabilité bi nga xamante ni population bi am na ko par rapport ak police am loolu tamit du nekk loo xamante ni dafay xëy rek teew c'est-à-dire que liggéey la boo xamante ni il faut que ñu dugal ko dans une dynamique boo xam dañ koy évaluer tout le temps ba xool fan lañ ci toll et la meilleure réponse pour man président Macky Sall daf ko trouver bi mu bi mu gagné bi mu gagné élection yi en mooy mu indi une police de proximité mais police de proximité boobu lan la devenir rapidement désaxé complètement ñu utiliser ko à d'autres fins yoo xamante ni alors que ñoom ci seen bopp sentiroon nañ le besoin de sécuriser les les les les populations de plus près mais police de proximité boobu et loolu question bu ma lay jox la est-ce que tey jii waruñu dem encore vers cette police de proximité boobu waxuma wala wala sax une police municipale. Hmm. boo xamante ni aussi dañ koy jox ay moyens au niveau parce que ñoo ñooy gën a mën a comprendre. kii amoon na fi ay temps donc tu préconises ñu indiwaat ko. mais de façon vraiment que mu nekk hmm. une police municipale boo xamante ni avec des moyens maintenant quand tu prends aujourd'hui le budget des collectivités locales hmm. loolu tamit pour nga mën ci am loolu tamit c'est c'est c'est beneen difficulté la leneen li aussi mooy loolu ñoom liggéey ñoom professeur Djibi Diakhaté la mooy. liggéey bi nga xamante ni war nañ ko def tey pour aider davantage à trouver des solutions mooy typologie bi cartographie bi d'abord hmm. typologie bi ensuite gis yàlla xam na ne bu ñu defee liggéey boobu dinañ comprendre pourquoi mu am niveau de violence boobu fan la gën a amee ak ban xeet lay nekk hmm. waaw léegi nag du nekkuma di wuutal ay circonstances atténuantes les parents mais dans certaines situation c'est difficile nga yar sa doom aussi bu fekkee ne école bi yaakaaroon pour mu jouer un parce que école ngay yaakaar l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison bu fekkee école ba nga yaakaaroon école boobu mënatu ko jox li nga xamante ni moom la ko waroon a jox euh, yenn saa yi sax mbedd mi sax daan na la dimbali parce que à un moment donné aussi ay ay yoo xamante ni amoon nañ ko ba nga xamante ni euh, yu bari mbedd mi doon na ci dimbali loolu tamit faillir mais il est évident que ne euh, quand tu cherches à joindre les deux bouts pour nga nekk fa tamit di talaat yar c'est extrêmement difficile mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu aussi dafay revenir sur la question de la répartition des ressources mm-hmm. parce que accaparement bi bu continuer di am aussi ñu am sentiment que ne ñii dañoo jël li ñëpp bokk mais mooy beneen bi mooy tamit euh, les types de violence mm. waaw mooy mooy une violence boo xamante ni aussi bu fekkee ne damaa jàpp ne man li ba ci biir kër gi man maay papa ji ma jël lépp téye ko mais bu ma moytul sama doom rebelle wu sama kaw alors euh, professeur ak commissaire dinañ ci tontu am na interrogation yu bëri yoo xam ni yéen a ko moom police de proximité bi waaye it euh, typologie bi cartographie bi <coughs> rawatina tamit ni mu wax yarin wi ci kër yi ni mu fayiree mbedd mi école bi professeur loolu defe naa yow yaa ciy gën a sori papis waaw en fait man damay njëkk euh, taxaw ci wàllu euh, notion de sécurité wala problématique ou sécurité hmm. c'est que dañoo nekk on est en 2019 le constat est que euh, sur l'ensemble du globe dañu am benn euh, problème de sécurité je crois qu'il n'y a plus jamais ici-bas quelque part où mën nañu garantir ne y la sécurité c'est le monde qui a est en train de faire face à à ce phénomène parce que autant tu as des moyens autant tu as des insuffisances par rapport aux malfaiteurs euh, autant manqué nga ko c'est c'est que c'est pas lié justement à, à la géographie à, au continent c'est un problème mondial donc mu mënuñu si génn euh, li muy dangereux pour ñun bu ñu nekkee pays bi ñu nekk maanaam dëkk boo xamante ne amoo doole ba pare nga war a dund insécurité am ay euh, des appâts moi je les appelle des appâts mooy gaz bi pétrole bi ay circonstances wala ay raisons yu motivé que euh, que le pays soit euh, en orbite quoi commissaire wax na ko sànq li mu wax euh, dañ koy cerner ba pare et puis mu wax ci wàllu population bi je crois que euh, ça c'est une vieille revendication de tous les cadres de la police et même de la gendarmerie pour mm. dire que ne il faut qu'il y ait benn interconnexion entre les populations ak les forces de sécurité donc aussi bien la police que la gendarmerie mais boo xoolee par rapport à l'évolution insécurité bi au, au Sénégal loolu connexion boobu ba léegi dafa ça a du mal à apprendre parce que euh, autant on le constate autant on, on ne cherche pas peut-être les, les vraies raisons qui font que euh, brassage boobu mu mënul am parce que historiquement ñun culturellement boo arriéré ay 30 ans ci ginnaaw 40 ans euh, à, à la limite rapport de peur moo entre le citoyen population yi ak ak force de l'ordre mooy gendarme mooy muy policier en d'autres termes pour être plus pratique boo ne woon policier mu ngi ñëw da daw boo ne gendarme baa ngi ñëw da ngay daw y a jamais eu cette euh, ce confort de cohabitation ou de flirt entre guillemets avec les les forces de sécurité euh, moo tax ma ma gëm ne il faut ñu reconsidérer la chose hmm. benn aspect bi Euh, solo mooy les populations parfois amuñu confiance parfois sur l'application de, de la loi je peux donner quelques petits exemples dama am waaw bu ndaw quoi c'était au niveau de la gendarmerie sam benn nit bu ma xam euh, am kër lu woon ko benn femme ñu am ay problème de façon arbitraire de façon autoritaire femme yi bëgg def ay affaire ba pare moom mu dem femme bi yóbbu ko gendarmerie en plus donc moom bu mu demee le commandant a a tranché jox ko dëgg mais dafa génn si euh, brigade gendarmerie bi nekk en transe c'est-à-dire di di mel na kuy daanu rab woote téléphone parce que il veut à la télé mais ñu ne ko mais lan la mu ne parce que xalaatul woon ne euh, sa gendarmerie national dina am taxawaay bi parce que dañ ko bëggoon néewal doole ci li mu moom yóbbu ko gendarmerie pour sonal ko le commandant a tranché donc rapport de confiance dafa dafay am souvent donc en partant il n'était pas sûr que dina am dëgg alors que dañ ko tooñ et dans la pratique il a la femme mu muy jubilé quoi ne xamuloon ne indépendance gendarmerie am na à ce point et que les gens font la loi euh, arbitrer équitablement entre les, les les citoyens donc c'est autant de facteurs pour man yuy regrouper yuy def ne day am toujours ay dysfonctionnement day am toujours ay incompréhension beneen aspect pour terminer pour ne pas monopoliser la parole mooy kumba am lay ak kumba amul lay c'est-à-dire euh, yow der tu es quelqu'un su ma la yóbboo ci yoon wala ci police wala ci gendarmerie ak pour cent il va rien sans se passer quoi bu fekkee du ay crime yu grave yi quoi je veux dire. Hmm. donc tu as tu n'as aucune chance que ñu arbitrer parce que kii dafa am doole kii amul doole.

mais en partant de l'exemple du commissaire mooy comme femme bu am xale bu am 16 ans euh, dem si kër jàmbur mm. ba ba papa di wax ay fille de France nag fee lañ ko yóbbu si néegu ça veut dire que c'est une mutation terrible une fille de 16 ans il y a 30 ans xalaatoo ko ça veut dire que dafa am benn benn crise d'autorité oui non je mais on appelle ça une fugue point non mais fugue booy fugee du xam nga dafa ne c'est le ce n'est papa oui. borom kër gi. Hmm. moi j'invoque la autorité euh, Oui. en ce moment ce n'est plus ay fugues normal bu fekkoon ay 30 ans si ginnaaw si suñu yaakaar day téye loxoom woo yaayam delloo ko si par amul xaaral ba ñëw mais léegi le monde a tellement changé surtout nous au Sénégal am crise d'autorité. Hmm. crise d'autorité parce que non seulement le policier il a du mal à euh, recadrer le, le mais les parents eux-mêmes. mais son démissionnaires et sont impuissants. Parce que ça, c'est un signe d'impuissance. Hmm. Une fille de 16 ans qui disparaît, qui revient, ñëw benn femme benn famille papa ji di papa borom kër googu di wax ne fii la ko di expliqué il y avait même pas d'explication c'est que la pratique la logique voudrait que mu téye ci loxoom woo ay waajuram delloo ko. Hmm. même si Papis il faut souligner que am na kër yoo xam ni loolu ngay wax ni ba léegi kenn xalaatu ko fa. alors Bouba. wax dëgg sa baat bi lu ko rey foofu de. laaj ñu yow yow yow ça se voit que tu vis dans l'autre Sénégal grippe bi ci dëkk bi yëgoo ko. ah Badou. waaw yow ban grippe la. saf saf ñetti fan a ngi nii. ba grippe la ah man tane naa ni sax tane naa. waaw del bi ci dëkk bi yëgoo ko da koy tiital di. bi ci àdduna bi. ah non c'est dans l'autre Sénégal yéen. jàkkaarloo la ñu koy seetaan. ah et dëkk bi mooy lan dëkk bi c'est chez ah, réew mi moo rëy non ñii ce sont les ah. patrons c'est ah c'est le Sénégal d'en haut <laughs> waaw man en fait en fait man lu may lu may wax moom mooy pour man fu ay nit nekk hmm. ay nit rek la mën a doon hmm. nit ñi fu ñu mënti nekk zéro violence zéro meurtre mënul am hmm. man damay wax Sénégal est-ce que ñun quand on se base sur acquis yi ñu am pour peut-être régler yenn dysfonctionnement yi. parce que man ci foofu c'est pas pour banaliser ah. pour man foofu laa koy teg parce que dañu nekk ci benn réew bu xam ne si quand même assez particulier Sénégal ngay gis 4 millions de nit dem Touba dem màggal Touba ba ñëw dañ ci jàpp benn waay ji ñaat wala fukki waay gaa yi bu doon tux yàmba ñu jàpp ko benn waay bi doon pickpocket mais pendant 10 ans par à la limite doo gis benn. crime bu fa am ay nit yu xeex jamante wala dara violence presque zéro. nga dem ci yeneen confrères yi même chose mais loolu ak i la loolu pour man dañ ci war a am jàngat mooy que en réalité lan la ñu war a convoqué ba nit ñi nekk ci état d'esprit boobu tout le temps. Mm-hmm. dañu nekk aussi ci 2020 et euh, ci jamono joo xam ne internet ak du ma wax sax journalisme balaa ñu may attaque mais en tout cas ñi nga xam ne mën nañu mën nañu génne xibaar bu xew ah lu daan xew peut-être il y a dix tey bu xewee buñ la ko présenté. Hmm. ba titre ko tu as l'impression ko mosul am fekk en réalité pour man dafa kenn mënul nekk si benn société bu am violence zéro. Hmm. une fii bu fugee daw am 16 ans euh, wax leneen ak leneen ñun bi ñuy màgg bëri yàgg na ay gis ay ay femmes ay ay jigéen ñu daw. Hmm. mais dëgg la yàgg na nekk ay xale yu jigéen yu daw fugee seen kër c'est pas c'est pour man c'est pas c'est pas un du débat réew hmm. du débat boo xam ne dafa war a interpeller un peu opinion bi pour man c'est des choses qui arrivent par contre bu ñu reyee benn xale taalibe ñun waruñu jooy waruñu nekk fi di kaas parce que on laisse les enfants dans la rue ñuy hmm. dox hmm. te kenn jugul teg si tànk bi ne lii day fawar a arrêté donc tant que réglé wuloo problème boobu boo ci gisee ku dee wala ay six xale yu fi lakkoon wala kenn ku kuñ fi torturé mais pourquoi ngay kaas est-ce que ñun du ñun ñoo violence boobu bi ñun ñoo ko teg ci kaw table bi est-ce que nit ñi am nañu quand li ñu war a wax ñu ngi koy wax teg ko ci table bi te yàlla tax bu fi kenn pour man bu fi kenn wax ni benn xale dañ ko rey nii mais xale yi parce que ñi nekk ci biti dee nañu ba pare chaque jour nga génn fi fekk xale boo xam ne dee na ba pare parce que xale boo bàyyi ci mbedd bi ba 2 heures 3 heures du matin mu def tànku neen xamul fu mu jëm xamul fu mu def def ko sa doom mais ñooñu dee nañ ba pare on les voit tous les jours mais kan moo jóg taxaw ne lii dafay jeex nañ leen fi jële donc histoire bi boo ko demee nettali France xam lu lay wax wala nga dem état dana naa mais c'est normal dañuy bàyyi seen xale yi ci yi à 2 ans 4 ans 5 nekk ci mbedd taxawaan et effectivement di ngeen ci am ñu dee di ngeen am ñu ñu violé te ñi nga yëg ñu nga yëgul moo ko ëpp donc pour man il faut ñu convoquer loolu bu ñu génnee police teg fële génne gendarmerie teg fële mooy que protection wu xale yi ci mbedd bi fan lañ ci toll parce que tant que xale yaa ngi nekk ci biti tant que xale ñu ngi leen di bàyyi ak ñoom seen bopp lii ils sont exposés kenn mënu ci tarfatal ay donc pour man on est dans un pays boo xam ne euh, bu ñu moytuwul mën nañu peut-être. Euh, tirer sonnette d'alarme boo xam ne peut-être que affaire bi fi ñu ko yóbbu sax eggu fa. par contre man li ma gëm ba gëm ko mooy que bu ñu nee euh, relation police ak. ak ak citoyen citoyen bi boo demee ci dëkk yu mag yi muy France muy États-Unis boo nekk États-Unis boo à trois ans xam nga 911 lu muy signifier hmm. mais 911 boo ko woowee da ngay jot nit. accessibilité bi cest à que nan la nit mën a amee problème <laughs> tey jii. ne kar loolu lañu war a liggéey. Mm-hmm. te ñu nekk ci jamono tey ji nii doxal ci mbedd mi nga dajeeg di sénégalais lambda ñu si gën a quatre-vingt-dix pour cent yi jànguñu nga ne leen boo amoon problème tey ban numéro ngay woo police du la ko wax <coughs> wala gendarmerie billaay du la ko wax est-ce que ñun ñu fi nekk sax am na ñu ko xamul boo moytu man mi xaw ma ko. c'est pas le 17. non mais juste xam nga yaa ngi naan c'est pas le 17. c'est-à-dire en tout cas c'est pas automatique. Mm-hmm. par exemple man amuñu amuñu réflexe non wax. pour wax dëgg rek. xamuma woon ni 17 nga war a woote. mais donc est-ce que est-ce que ñun li ñu war a def ñu ngi koy def. parce que jarul parce que nit ki mën na bëgg a dem bañ parce que déplacé wu dem bu police day supposé nga am xaalis wala nga am oto bu la ko yóbbu. mais comment on peut faire pour que si nit ñi ñu def loolu ci seen bopp que ni la police la gendarmerie en tout cas force de l'ordre yi dafa dañu accessible. mais mm-hmm. ñu liggéey si si kii link boobu comme ñun Sénégal fii. gardien bi ngay fay cinquante mille sax iPhone la yor wala dara on est tous. connectés te Mm -hmm. mais utilison ça pour pour essayer peut-être de de rendre la police beaucoup plus accessible. parce que Sénégal boo duggoon kër jàmbur fii sàcc. boo demee France sàcc dugg kër jàmbur sàcc boo génnee tubaab bi nii lañ lay rombee bu ñu ci dugg fii boo sàccee kër jàmbur boo génnee koñ bi yëpp lay dàq. on a des acquis ñun ñëp ci loolu la ñu màgg te lool bi ñu juddoo ba léegi mi ngi fi on est solidaire ci côté boobu amuñu doox pour man amuñu look ay socle yu dëgër yoo xam ne il su que ñu liggéey si loolu. dañuy gën a améliorer sécurité nit ñi. Euh, zone yi nga xam ne mooy ëpp crime yi. mais c'est même chose bu may wax ak xale yi xale ñu ne si bàyyi boo fekkee benn koñ boo xam ne nit ki bu jógee liggéeykaayam bi jëm ci lëndëm lay dox éclairé loo ko mais saa yi fu lëndëm am mais foofu la violence di gën a bëre. pourquoi liggéeyi ñu ba nga xam ne quartier yooyu nga xam ne violence bi dafay gën a bëri quand nit ñi am yenn à la limite le minimum. donc pour man ñun suñu problème yi ñu am yëpp. à solution bi. dañ ko waroon anticiper nit ñi nekk nekk teguñu leen ci ay conditions yoo xam ne à la limite mën ngeen dimbali ci sécurité. sécurité parce que police bu ñu nee six wala sept crimes am na police résoudre cinq yi ça veut dire que cette police là. dañ ko wala gendarmerie quand même. c'est très important. à 80 pour cent ñuy résoudre problème yu fi am moom mooy que am na quand ay jéego yu ñuy dox maintenant si anticipation bi pour man foofu la foofu la problème bi euh, nekk. alors professeur Djibi Diakhaté da nga may jàppale ci terme de référence yi mu leen yónnee euh, taalibe yi ñuy euh, rey ak métital souvent ak enfant de la rue plus généralement ci terme de référence yi la ñu waroon terminer. pour sa jàngat foofu euh, ñu bañ ko fàtte ñu ñu tëjee ko chapitre bi ah buñ ci tolloo ma dellu ci commissaire interpellation yi bëri na. Pape Djibril Fall sur euh, police de euh, proximité ou police municipale bi nga xam ni il appelle sa à ses xaw ma lañ koy woowatee ñu indiwaat ko. Papis Diaw tout comme Bouba ni ñu posé problème bi lan nga ci indi comme tontu. c'est vrai que interpellation yi bëri na Abdou euh, Djibril li mu wax c'est c'est très pertinent euh, mais su may wax effort u état c'est pas de la démagogie c'est une réalité maa ngi koy fàttali que bi may def concours man on prenait deux personnes sur le plan national on était 4887 candidats on prenait deux et les gens s'en glorifiaient alors que xamuñu ne c'est très mauvais pour la corporation parce que dañu dem ba finalement les gens partaient à la retraite mais amuñu ñu leen remplacer parce que le nombre ne suivait pas. Mm-hmm. ñu dugg ci recrutement massif. Mm-hmm. ay cinquante commissaires ay cent commissaires. fi mu nekk nii dañu dem ba gis ne sax li ñu recruter dafa bari ci commissaire. Mm-hmm. mais loolu kon recrutement massif am na. ay ay ay ay six cent personnes cinq cent personnes la ñu daan recruter. léegi on recrute d'un coup mille huit cent deux mille. ça veut dire qu'il y a des efforts extrêmement importants d'État. ça c'est pas de la démagogie c'est la réalité d'ailleurs. Euh, la population, euh, disons, la, la, la, police actuellement, on est en nombre. Wolof. On est, on est de, de, police, de dañu macha allah quand am nañu lépp yu xaw a doy par rapport ak li daan am. maintenant est-ce que doy na pour mën a gérer la sécurité du doy mukk nag doy mukk parce que dama ne tant amuñu benn policier derrière chaque Sénégalais pour man eggaguñu fi ñu war a fi ñu war a yegg te loolu du am mukk alors leneen li euh, police de proximité bi ngay wax. police de proximité tuddoo ko mais xam naa ne ASP yi ngay junj mais mais police de proximité sax dafa jiitu ASP yi. Mm-hmm. jiitu na ko. Mm-hmm. Euh, man en 2007 maa ubbi le poste de police de Diamaguène à Mbour en 2007 le 16 août 2007. Mm-hmm. police de proximité. parce que muy jël benn poste de police implanté ko dans des quartiers qui ont une tradition délinquante. des quartiers difficiles. nga dugal fa police. ñu ñu ñu def ci également. Euh, beneen approche buñ ci defoon ñun à l'époque beneen jàngat. mooy ne population yi il faut la meilleure manière de inviter leen ñu ñëw vers toi mooy football ak ñoom parce que le sport est un vecteur fédérateur. dañ ñoon football ñun football rek la ñuy def ba fii may wax yow. Mm. chaque di am nañu match stade Caroline Faye 22h 0h. ko ñu mbuur yëpp tase nañoo ñoom daanaka. vétérans ah, ah. am nañu yooyu mën ngeen a ñëw ñu fubal ak yéen dóor leen <laughs> yooyu approche politique de proximité la. Parcelles Assainies c'était c'était le cas commissaire yi ko fi def à Dakar du jeex au Sénégal du jeex. sans compter maintenant yi ñu def. dans les dans les régions. rencontré wu entre forces de défense et de sécurité parce que foofu également y avait des goulots d'étranglement. il faut il faut faire éclater ces chaînes là. ay cloisonnement et cetera et cetera ça profite plus aux délinquants. qu'aux qu'aux honnêtes moo tax fexe ba maanaam maanaam lëkkaloo bi bi war am entre gendarmerie yeeg police. <coughs> armée et cetera et cetera sapeur pompier force de défense de sécurité yëpp dañuy def corpo. Mm-hmm. marche yu métti lay doon nag parce que kenn du bëgg kenn yóbbul la ko. Mm-hmm. mais mais mais très positif in parce que résultat bi ñu ciy soxla. mooy fexe ba boo jàkkaarloog euh, euh, chef d' unité wala commandant d' unité telle force nga xam ne diw la ba pare nag relation yi day gën a huilé parce que sport mhm. moo moo moo mooy mel noonu dafay mhm. dafay fédéré mhm. euh, du jeex du xaaj initiative yi ñuy jël pour fexe ba euh, dafa am nag loo xam ne dafa naqari géré fi may waxee am na ku ma téye commissariat Mbour dafa renit et puis cousin seen ñaari papa ñu bokk ndey ak baay ay jaaykatu légumes marché central xam nga yooyu police mënu ko gérer ñaari nit ñuy jaayi chou chou pommé la jote jox na ko ay chou pommé mu waroon jaay chou yi delloo ko son capital jël bénéfice jaay na jeexal joxu ko mu ne ko na sama xaalis muy muy làkk daadaa ñu xeex mu dóor ko ci tuñ ñaari lèvres yëpp d'ailleurs neew yi mu gis ne il est en en minorité mu mu mu mu jël paaka jam ko ko ci cuisse ko xam ne il n'avait pas l'intention de tuer ah, jam ko ko ci cuisse certainement ñu ñu ñu ngi xaar euh, résultat autopsie bi mais certainement loolu lay loolu lay war la mm-hmm. son sang a beaucoup coulé biñ ko yóbboo ko ko aux urgences tuuti mu gaañu mm-hmm. biig ci guddi vers 22 heures la ma ko docteur bi noti notifié donc c'est c'est des choses yoo xam ne mm-hmm. bëri na cas yu mel noonu li ci am solo rek te neexuñu sax parce que bu ñu sañoon kenn du rey kenn mais eh, cas ci élucidé yëpp cas yi ñu ci yi fi am zone compétence police yëpp statistique yaa ngi nii indaale naa ko élucidé nañu yëpp bi ci mujjee am mooy bu bi dégg nga ne jàpp nañ ci quatre suspects enquête baa ngi déroulé. Mhm. boobu sax la ñu war a wax état de sus situation euh, la war a wax nañ euh, mën a tuddee euh, wax suspect parce que. Mhm. enquête bi mu ngi mi ngi continuer mais yi ci dafa leer mhm. Mbuur ak Touba mbakeek dakaar ak yëpp dañu dañu jàpp ñëpp. à cent pour cent. mais mais mais nag boo gisee ni muy demee parfois. c'est des situations extrêmement difficiles pour nga pour nga mën ko gérer et puis damay dir si ci rebondir ci effort de sécurité bi nit ñi waral mm-hmm. euh, ay temps dañu dañu dañu Malicounda c'est un la commune de Malicounda mm-hmm. dafa dafa am des éleveurs de ladoum kenn kuñ ci jël 63 xaram 63 xar ay di mouton de race yoo xam ne ay 3 millions la ko gars yi jaay ak yu kenn xamul coow li bëri parce que effectivement boobu vol de bi ci àll bi du jeex man du du woon sax sama secteur de compétence mais dans cette démarche anticipative man du ma xaar mu ñëw dama koy fekki bii bi affaire bi amee ma le président des éleveurs local ma ne ko mais eh, ñaata xaar moo ne ci ci enclos bi mu wax ma nombre xaar yam fa yor minimum xaar bi ñaata lay jar mu wax ma ko ay millions ma ko est am nga benn gardien booy fay soixante mille mhm. wala soixante quinze mille wala cent mille boo xam ne dina ci daq dàq wërsëgam nga nga nga résoudre le taux de chômage au Sénégal mais nga permettre au moins mu am mhm. muy veye mhm. ci sa alal mu ne mu amul gardien fan la nekk mu ne mu ci biir kër gi kooku déjà il met sa famille en insécurité permanente parce que xar moom foo ko denc bul sax son foog gaa yi ñëw ba pare ma ne ko ndax am nga caméra parce que caméra quand même mm. ça devait dafa war a nekk réflexe pour ñi ko yor ñu yor xaalis laa réflexe la war a doon amul caméra amul amul amul gardien les les stations d'essence dañu song station Saly c'est pas mon secteur de compétence douze personnes ñoo fi ñëw si si si oto bi si si song station bi ils ont tout vidé ils sont partis dem seen yoon euh, avant ñuy intervenir brigade gendarmerie bi di intervenir nit ñi dem nañu j'ai réuni les douze chef de station d'essence que compte la commune de Mbour sama bureau mais leen du gis ngeen li xew sali dinaa ma ne leen bu ma xoolee ci fii la jëm si ma ne leen waaw ma ne leen man laajuma leen essence laajuma leen oto yor naa essence yor naa oto yor naa nit ñu liggéey liggéey bi mais yéen dama bëgg ngeen defal ma état des lieux lan moo am ci seen station yi amul gardien pour le peu de station defe cinq moo ci amoon gardien mais gardien ay yet lañ yor mais yet jàmbaar lan la mën ci ku wàcc ci pick-up ak ay armes à feu. ñoom ñoo war a garder seen bopp. ah non xam nga euh, euh, au moins le premier rideau sécuritaire. ñoo ko war a assurer nag. Hmm. parce que ñoom si da nga yor sa station d'essence. mais loolu aussi est du gën a dëggal le sentiment hmm. d'insécurité. non non non non non da nga yor sa station d'essence valeur bi rek mat na 500 millions te tu joo jël le minimum. mais ñu ngi fay impôt. no waxuma impôt sa à euh, ñu ngi fay impôt mais police du dem gardel kenn station. loolu du am TFM police gardé wu ko bi may ñëw fii ñaari rideau sécuritaire la romb. Hmm. te man sécurité ma ñor bi ma ñëwee gis naa comment la TFM est tenue et c'est important et c'est rassurant compte nous tenu du du du d'inspection filtrage mais noonu la war a demee mm-hmm. ñi am moyen laa wax mm-hmm. parce que police ñi amul moyen la gën a mën a taxaw bokk sax mm-hmm. mais ñi nga xam ne am nañ moyen lan la ñu par pare pour def ñoom pour que police ñëw en appui euh, le premier rôle sécuritaire ñoom ñoo ko war assurer cette station bi valeur bi 300 millions à 500 millions gardien bi nga jël parfois sax du am gardien mais gardien bi nga jël pour le peu de station yi ko am. Mm. ay yet lañ yor. alors que y a des sociétés de gardiennage qui ont une autorisation de port d'arme doo jël ci ñooñu. Mm. mais da ngay fay plus. boo jëlee sagam jël ku yor aw yet di ko fay cinquante mille léeg-léeg sax nga ngay doo dàq ak moom moo leen gënal. Mm. beneen bi mooy amul caméra. parce que caméra bi dafay dimbali police ci enquête bi. ñu def ñi tojoon station Shell bi nekk. Euh, quartier bi nekk Sidima. Sidima fële Kër Massar. Mm. am Almadi 2. waaw xam nga station bi dend ak bi tojoon nañu ko à l'époque mais ñooñu bi ñu leen di jàpp mais dafa may caméra. et c'est des c'est des c'est des délinquants qui étaient enturbanés. dañu dañu nëbb seen kanam mais mais mais démarche bi ak. Euh, ngànnaay ñi ñu yor moo tax tout suite. ñu ngi ci enquête bi ñu xam ñii ban profil la. Hmm. ban profil de délinquant la ak ñan ñooy doxalin yi. Hmm. ci la ñu kàbale ñu jàppale. Hmm. mais yooyu dafay aider dafay aider force de défense et de sécurité yi waxuma nag ne euh, le bas peuple. entre guillemets nga def loolu. mais le bas peuple li ma koy ñaan mooy ku ci am doomam bu am deux ans nga bañ ko sàggane bu muy génn ñu koy këf loolu quand même pam ji bi soxlawul xaalis. soxlawul xaalis. E-, effectivement commissaire on va toujours toujours Euh, police de proximité boobu oui accessibilité euh, surtout bi bu buuba posé. accessibilité bi dinaa ci ñëw léegi si buuba. donc mais professeur wax na léegi euh, lu am solo. Mm. moom mi maa ngi lay wax ci à l'entame de de mon propos ne. Mm. maa ngi ko gëj gis bi mu ñëwee à l'école nationale de police et de la formation permanente di participer au mercredi de la police. Mm. chaque mercredi on se réunissait. mais on se dañ doon tase pas ak policiers yi rek. mais professeur du ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mhm. il y avait de sommités ñu mhm. doon ñëw di participer à ces débats là c'est des rapports qui étaient faits et en terme de proposition da doon impulser la politique sécuritaire mhm. du pays pour ñoom si buuba euh, le 17 police xam nga manque de civisme bi ne ci réew mi nag moom dama fi fépp démb le lieutenant des sapeurs pompiers de Mbour daf ma woo ni ma non c'était pas hier semaine hmm. am na numéro téléphone boo xam ne sonal nañu. moom bu wootee day day saaga ndey bu wootee day wax lu bon pour pompier nga xam ne ñoom dañuy sauver nit ñi xam police sax mën na laa jàpp mais sapeur pompier quand même du la jàpp. Hmm. lan nga war a mën a jotee ak ñoom. ba di leen woo di leen saaga ndey. kooku est-ce que wér na. fi fi mu ne ñun ci enquête boobu. on est-ce que wér bi 17 hmm. da ngay gis éléments yi dañ koy décrocher raccrocher ko teg ko. parce que saa yoo saaga yi commencé na te on n'a pas jotu nag. Hmm. di di di topp c'est pas une raison quand même. Hmm. que ñu ñu bañ a utiliser 17. li ngay wax nii pour fournir ko da nga ni 17 ñu ngi sonné occupé occupé. mais la sensibilisation aussi dans ce sensibilisation commissaire xam naa commissaire bi nag. commissaire dafay déggoo nag très très taxaw waaw a a na jéngu fi door. waaw comme am naa sama benn na jéngu fi door. am naa sama benn benn sëñ sëñ Fallou Mbacké. bu ñu werante ba d' ci benn affaire damay dindi dindi montre bi comme mënu koo kii ma gis montre bi teg moom mooy sëñ bi d' accord waaye commissaire wax dëgg yàlla ah ah. dëggantaan parce que parce que Mm. réalité. en réalité réalité. Mm. du agent yi ñoo war a jël téléphone bi. Mm. en réalité pour man du agent yi de police yi ñoo war a jël téléphone bi. ñu ut opératrice yu boo dañu boo wootee boo wootee euh, orange. Ah, pour information. dama ah, du du directeur commercial bi ngay jot. même fii même fii boo ma doon buggee jot. ah du benn kii da nga jaar ci kii pour man loolu service bu ànd bokkul ak les les hommes de tenue la nécessaire en tout cas dañu war a former ay nit yoo xam ne. xam nga wuyu rek wuyu wuyu kese. léegi nag dafa am dara lu am dafa am ci ay métiers yoo xam ne loolu nga war a gën a mën a nangu. Hmm. mooy que di nga gis façon nit bu nekk mais. service bi nga war a def. pour la population loolu moo ëpp doole. Hmm. mooy primé si doole pour man pour man woote 17 ah. cinquante personnes yuy jël téléphone ah dafa war a exister nga xam ne mooy dispatch ban quartier nga nekk jël information primaire yi mooy am fépp. mais bu dee agent yi ñoom ñooy jël téléphone bi directement ci kii bi ça pose un problème peut-être c'est un problème de moyen mais en tout cas. Mm-hmm. pour man ce service là. il n'est de. interne interne. il faut l'externaliser de de qui mm-hmm. nga xam ne alors ah maa ngi ñëw teg téléphone bi taal sa oto dem rek la di problème bi loolu moom moom mm-hmm. mën naa saral moom. c'est waaw mën na saral oui Aïcha c'est que pour tontu Bouba ci loolu rek. Euh, li muy wax nii c'est c'est vraiment l'idéal. Mm. mais mais mais xam nga. Euh, sécurité aussi dafa sensible. Hmm. am na ñoo xam ne mënu leen ko confier. 17 euh, bi dañ ko calibré boo demee dans la région de Dakar boo wootee 17 dakaar ngay jot boo demee Mbour boo wootee 17 Mbour ngay jot donc hmm. noonu la. Euh, te te mais commissaire nga dul nga baal ma mais nga dul jot dañuy wax. parce que non non non li ngay li ngay li li ngay jot. Pierre woote waatal. li ngay jot li ngay jot moo ëpp c'est que Pierre woote waatal. c'est que xam nga li garaaw pour man mooy déjà le fait que. <laughs> merci Pape Dibé le fait que nit ko woon song ba tey <laughs> mais le fait nit ñi tàggatuñu leen. pour ñu am Pape Djibril baal ma Pape Djibril. toujours loolu sax bettuñu loolu sax <laughs> waaw donc le fait que duñu am réflexe bi. le fait que aussi ci sensibilisation bi à partir euh, ci fi xale yi gën a nekk fi fi nit ki gën a nekkee xale ñu ko ciy tàggat wut canaux yi nga xam moo gën a dëppoo ak jamono ñu jaarale ci loolu mu nekk une offensive boo xamante ni communicationnelle boo xamante ni de sensibilisation boo xamante ni police dina jël ci ay moyens pour def ko Ah, ak ministre de tutelle am xëy na pour que ñu évaluer loolu ban jeexital lay am ci population yi comme li mu wax léegi ne boo demee États-Unis par exemple réflexe bi mooy 911 xale yëpp moom lañ leen di njëkk a jàngal pour ñu kii c'est vrai que foofu aussi le besoin de sécurité est énorme moo tax foog ñu tàgg foog ñu kii leen ci loolu mais ñun aussi je pense que ne côté boobu dañ ci am dañ ci am liggéey bu rëy rëy boo xamante nii war nañ ko ci def et moi je vois pas la police. Mm. pourtant pourtant wàllu communication. pourtant Pape Djibi ñu ñu ñu ngi communiqué ah police mi ngi communiqué police mi ngi sensibiliser également surtout par rapport ak. Euh, euh, naka honnêtement police pour wax la dëgg rek. honnêtement police ci réaction léeg-léeg di gën a gis. mooy ñu mettre leen au box des accusés. Mm-hmm. ñu daw jël benn émission pour réagir wala ñu invité leen wala soit mu am benn cas boo xamante ni taxaw na et là j'interpelle j'interpelle directement ñoo xamante ni mooy le bureau des relations publiques de la police c'est-à-dire que pour man il y a un énorme travail à faire dans ce sens non en papi bi euh, euh moi je pense que pour le volet sécuritaire pur euh, gis nga bu police doon doon def prévention mm. kon dëkk bi tàkk on se déploie énormément pour la prévention Sénégal bu amee mhm. c'est que quelque part. Mhm. am na lu xew ci non d'accord nañ ci justement c'est-à-dire prévention man prévention parce que man prévention ni ma ko gisee. 94 mhm. pour de nos activités prévention. Euh, bi densification bi initiative yi ñuy jël etc yooyu prévention la police parle peu parce que la police a énormément de choses à faire beneen bi mooy par rapport ak 17 bi. dafa am nag lu président Kéba Mbaye waxoon loo xam ne man dama citation la bu ma neex. bi muy wax ci wàllu prison yi. dane autant la cybernétique n'est pas entrée dans la thérapeutique d'un médecin de brousse. et tant il serait vain autant il serait vain pour le détenu sénégalais de rêver des prisons dorées des pays nordiques c'est exactement la même chose. c'est-à-dire ci wolof. Euh, kon suñu prison yi ni mel nii non je ne dis pas ça. Ah. je je je n'ai pas dit ça. j'ai une citation de Kéba Mbaye du président Kéba bu mu teniroon lors de son discours des cours d'ouverture de à l'occasion de l'ouverture des cours des cours des tribunaux de 1981. Mm-hmm. citation bu Maître Doudou Ndoye reprendre dans une de so une de ses annotations en 88 sur l'hypertrophie des pouvoirs du juge d'instruction. Mm-hmm. dama ko lire comme par hasard. Mm-hmm. mu ne lan mu koy lire sax yàggul. ci wolof est-ce que mën na ko wax ci wolof. maanaam maanaam daal euh, bu ñu bu ñu nag euh, am ay envolée lyrique. sunu sunu réew euh, prison yi mu méngool ca jamono booba. poli politique carcérale bi ñu adopté moo moo tolloog seen sunu doole. effort du ñakk effort mi ngi am. surtout ambition. état ah, ambition moo tax. Mm-hmm. ambition moo tax. ñu def un document d'action stratégique mhm. et un plan d'action stratégique de la police à l'horizon 2018 boobu jeex na ñu ngi songaat beneen il y a des esprits quand même puissants qui existent dans la police mhm. Mhm. c'est pas pour me c'est mais c'est la réalité cest dire des gens qui sont ambitieux xam ne nag changement mënu ñakk c'est-à-dire on est obligé de de passer à une mutation totale à tous les niveaux mais dafa am ñetti secteurs yoo xam ne pour accueil bi booba di wax léegi ay effort yu bare bare war na fa force de défense et de sécurité yi ci lañ bokk hôpital ci la bokk tribunal ci la bokk parce que ñetti secteur la yoo xam ne ña fay dem ñemewuñ leen même ña fay liggéey dañu amul pexe euh, à telle enseigne que ña fay ñëw ils viennent avec 50 pour cent de leur capacité il suffit nga am noo leen richigner wala noo wax ñoom rek mën nañ fa sax wax lu leen fa téye mhm. hôpital quatre personnes ñoo fay dem le personnel hospitalier le malade celui qui l'accompagne et son visiteur quatre personnes yi ñoo dem hôpital amul kenn ku fa bëgg a yenn da ngay ñëw aux urgences tu rencontres un médecin urgentiste boo xam ne moo lay rey léegi wala quelques membres du personnel hospitalier moo lay rey parce que day tenir discours boo xam ne kii lu ngeen taxaw ngeen xaar ba état bi egsi quelqu'un qui était venu avec de ses capacités boo ko tenir discours boobu il est mort parce qu'il mmh. perd espoir mmh. mais il voit un ki lui di yow noo sant mu ne ko Fall mu ne ko fekk jaañe la sant mu ne ko yow way yow lii du dara kaay ba faj la dem leen toog ne papa dem leen toog ne kaay kaay kaay nga ko espoir même si toi médecin tu sais que kii il a un cancer en phase métastase totale donc yooyu yooyu noonu hmm. nit ñu xam nañ ko te ñu ngi mooy levier yi muy wax ñu ngi yooyu nag levier yooyu sur beaucoup de choses yoo xam mën nañ xam nañu ne police moo la gën a xam ne hmm. l'accueil faisait partie de notre talon d'Achille les gens sont en train de changer. d' boo dem commissariat boo dem da ngay fekk jigéen mu toog ci poste bi. Mhm. parce que les femmes sont souvent accueillantes góor ñi d' ailleurs jigéen ñi lañu gën a ñemee waxal que góor ñi seen bopp. donc au niveau des secrétariats extra extra. <laughs> stigmatisation loolu ñuy defee maillage boobu au niveau de. commissaire euh, Charles Faye. waaw may ñëw ci professeur Charles. waaw ne sànq il faut psychanalyser la société commissaire wax na ko léegi. Hmm. ça veut dire que. Euh, et ça c'est il appartient aux sociologues mu gën a dugg si loolu parce que c'est pas mon c'est pas mon corps de mm-hmm. mon corps de métier mais faw ñu wax ko mm. quelqu'un ban ban Sénégalais la ñuy construire la tabax est-ce que xam nañ ko est-ce que xam nañ lu ñuy def nii est-ce que universitaires yi toog leen xool ko est-ce que Euh, lu mu tudd politique politique yi toog nañ xool ko est-ce que yi ak policiers yi def nañ ay rapport ba nga xamante ne tipp li ñuy gis waxuma la agression waxuma la banditisme professionnel man maa ngi màgg ñaay cokkeer l'un de quartiers les plus dangereux du Sénégal voilà màgg di fréquenter ay kilifa si wàllu banque ba rëbës musuma dégg fu ñuy rey nit si biir bu dul seen biir tey ngay gis ku lay agressé sans xam lu nga yor rey la door a jël lu muy jël wala dóor la jaas yi door jël lu ngay jël hmm. mais loolu ban façon la nit ki loolu qu'est-ce qui l'amène ba mu àgg si degré violence boobu pourquoi on en arrive là est-ce que police moo tax ñuy rey nit tey c'est pas la question ah c'est pas le procès de la police hmm. est-ce que gendarmerie tax ñuy rey nit non bu ñu bu ñu changé wax bi rey nit si biir kër ga lay commencer dafa am rey nit guerre rey nit bavure rey nit mais si biir kër yi moom la ñuy wax lu tax loolu am mm. mais si on ne touche pas du doigt mais on va faire tout ce qu'on veut mm. nit ñi vont continuer à mourir je pense que de ce point de vue dama lay jox benn exemple ndaw j'étais la fois dernière si benn lycée bu célèbre mooy lycée Limamou Laye maa ngi fa dem keroog 9500 élèves si benn lycée ma xool salle de classie vraiment ça c'est hors sujet tu me être mais loolu c'est déjà un terreau mm-hmm. c'est tout ce qu'il faut pour la violence ça veut dire dañuy créer les conditions de la violence day commencé si biir kër yi nga génn sa kër xool si mbedd bi condition de la violence baa ngi foofu dañuy dem ba vous ne vous rendez pas compte mu am syndicat bu de gësëm gësëm ànd gësëm ànd gësëm xaw ma gësëm vous imaginez loolu c'est ay ay spécialiste de la santé ñu ne gësëm les gens ne s'en rendent pas compte. tey ñu ne la ah, ñoo lànk. Ah, mais mais mais de la psychanalyse. secteur bu bëgg kii que le sociologue parce que j'estime que bu ñu toogee fii di wax ay police toog fii di wax ay gendarmerie on n'aura rien réglé du tout on pourquoi on est devenu mm. violent dans la nos veut dire mais tey fii ku ñu fi saaga tu peux être indifférent à insulte bu ñu la mbéjee di nga indifférent nga taxaw ne cot xool nit waaw. je donne l'autre l'autre jour. tu donnes l'autre jour <laughs> tu sais combien de personnes en son capables. bëriwul de kooku yar la xam nga ñun arts martiaux def. waaw kooku yar la pourquoi ma poser le ko parce que dafa am fu ma màgg. Hmm. dama màgg si biir kii j'ai été agressé poignardé. Ah xam naa de quoi je parle. waaw xam naa de quoi je parle boo dundul traumatisme boobu munoo xam lan mais heureusement que dama am dama doon def arbas mais affaire bi lan la mooy pourquoi tey commissaire dafa wax benn affaire jaay suñu jamonte paaka mu am ku dee des sur des blessés bon ça c'est euh, au tribunal d'en décider mm. mais pourquoi jël paaka jam combien de fois tous les jours nit ki jóg rey keneen ki ba pare toog di ko regretter toute ta vie après nga nekk ay mbokk mais pourquoi pourquoi faut-il tout de suite l'extrême policier bi arrêté la am lu mu la wax amoo recul nga wax policier bi ça tourne mal. Mm. c'est-à-dire moi bu buñ waxul loolu muy tourner di ne police la police mooy notre civilité mooy mooy l'inst le tout suprême de notre civilité mooy la police. professeur. pour moi professeur. pourquoi wu Charlie yi bëri na. mais benn moo tënk lépp pourquoi nous sommes devenus violents maanaam lu tax léegi ñu ñu ñu ñu mel ni ñu mel ba di ba di rayaate ma rax ci laaju Pape Djibril boo xam ni fàttewuma ko benn yoon mooy bi muy wax. Euh, jafe-jafe koom parents yi démissionné ndax loolu mën na ko expliquer ndax lay la maanaam ndax loolu lay bu. yanu maanaa la. waaw xam nga dama tàmbale sànq ma ne la. nit koo gis muy dund. Hmm, dañ ko mooñaale dañ ko mooñaale benn parti boo xam ne. violence parti boobu bàyyi ma la. Hmm. parti bàyyi ma boobu bëgg-bëgg rek la gis. Hmm. dafa bëgg lekk dafa bëgg naan. xelam dafa nekk ci li bëgg-bëgg rek la gis. mais parti boobu il faut ñu réguler ko balaa muy def musiba balaa muy def lépp. régulation boobu. moom mooy yar bi ñuy def ci nit bi. Mhm. alors suñu penc yi bu njëkk euh, boo ko dee xool ñi nekkoon ci penc mi yëpp ay mbokk lañu ne looloo indi ay kër kër Masaar kër Njaayloo kër mhm. mooy maam ba nga xam ne moo sañ ci penc ma moom la ñuy jox turu penc bi nga xam ne ñu bokk ci penc mi yëpp boo ko dee xool ci moom lañu ñu jógee ñeneen ñi dañuy wax wuro ñeneen ñi di wax euh, saare ñeneen ñi di wax kunda Touré kunda Cissé mhm. kunda et cetera mbokk lañu daan nekk léegi léegi nag ci mbokk boobu ñu daan nekk dafa am ay jikko yoo xam ne dañ ko doon def ci xale yi dès le bas âge dafay bind ci enfant noir ni bi muy nekk xale dafa am heure yoo xam ni papaam ak yaayam dañ ko doon wax ni loo mënti jàpp bàyyi ko nga ñëw ci kër gi mu ni bi mu màggee la gis ni heure añ la ak heure reer te heure yooyu nee na ni ñu doon taajee ndab li ak moom ni mu ca doon lekkee dafa am jikko yu ñu doon def ci moom donc bu ñu taajee ndab li ba pare dañ naan ko na toog toog bu jub toog bu yiw bu sell ginnaaw bu defee loolu ba pare ñu ni ko na nga téye ndab li ak sa loxo càmmoñ ndab li warul yëngatu mm-hmm. ndab loolu mooy penc bi ku ci nekk da nga ko war a téeg sa loxo càmmoñ ba nga xam ni penc mi du yëngatu mm-hmm. ñu ni ko yow sa loxo ndeyjoor rek ngay lekkee sa loxo ndeyjoor boobu sa kanam dong nga war a yem dama animé conférence université de Dakar lu tax dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la route man dañoo ci ndab parce que ki ñu nit ñi sa kanam ngay lekk doo yóotu kanamu jàmbur sa place rek ngay yem mën nañu am yaakaar ni bu màggee dawal dina yem place mm-hmm. ndawal nga ci diggu ndab la mag ñi dong ñoo am droit jot ci ñooñu ñooy les gouvernants les responsables les autorités. ñoom ñoo am droit jot ci mais ñoom amuñu droit jël ko taf ko ci seen kanam ñoom kese. dañ doon séddale bu baax dañ ko war a bàyyi foofu ku ci nekk la nga war a am ñu jël ko euh, tagg la tegal la sa kanam alors xoolal façon yar boobu euh, ak yeneen éléments yu mu développé. Hmm. léegi dañu dem ba benn instant euh, ñu changé suñu mode boobu ñu dëkkee woon. Hmm. créer ay villes notamment bi fi tubaab bi ñëwee. bi tubaab bi ñëwee colonisation française dafa jël lépp lu nga xam ni moo nekkoon infrastructure de production et de transformation taf ko ci wetu géej gi. Mhm. loolu la ñuy wax littoralisation de l' activité économique. Mhm. boo ko dee xool li commencé Grande Côte ancienne région du fleuve. ñëw ba ci Dakar. Mhm. jógee Dakar dem ba Finistère bi nekk Cap Skirring. ci ci façade océan boobu ci la tubaab bi taf ay usine am ak yu demee noonu bu mosaan jël gerte wala wëteen. da koy jëlee ci dëkk ba ca biir fa sore mhm. indi ko ba ci ba ci littoral bi transformé ko def ci bateau yóbbal dëkk alors looloo tax Dakar nga xam ni moo gën a tuuti ci Sénégal wax nañ ko léegi 550 kilomètres carrés 0,3 pour cent de de du territoire national Dakar plus de 4 millions d'habitants ñi ngi fi yeew waa Dakar ñoo ëpp waa Gabon yëpp boo leen boole. Mhm. te Gabon moo ëpp Sénégal Gabon 267 000 kilomètres carrés la Sénégal 197 000 matu ko sax mhm. Gabon fait au pour de 1 million 800 mille habitants la banlieue de Dakar ñëpp waa Gabon yëpp boo leen boole. Mhm. waa Touba ñëpp waa Gabon yëpp boo boole. Mhm. donc aménagement du territoire wax naa la yar ni ñu doon yaree bu njëkk. Mhm. ensuite ni ñuy sancee suñu ville yi. mën nga def cartographie bi tey jii boo demee yenn dëkk yi nga xam ne laayeen ni ñoo fa dëkk yu mel ni yoo fa yu demee noonu boo fay dégg agression c'est rare waxuma du am. Ah, ah. c'est peut dëgg la boo boo demee ci yeneen cité yi nga xam ne moom la ñuy wax surtout cité yu bees yi. nga xam ni ump nit ñi dañu xaw a replier ci ñoom. ku mm-hmm. nekk bopp sa bopp. Mm-hmm. boo wootee wàllu boo moytuwul nit ñi duñu génn mais fële. bu kenn yuuxoo ñëpp génn moom la buuba doon wax léegi ñëpp daal di génn ñëw jàpp ci loolu élément la bi ci des mooy un élément important mooy société bu bees boobu moom moo xam ne moom moom la ñu créé dafa indi léegi compétition entre les acteurs compétition li ñuy joxe bariwul te ñi bëgg bari boo demee danga koy fekk ci parti politique yi joxaguñ ma boobu ba léegi. boo demee danga koy fekk ci yeneen secteur ci service yi ci et kii am na lii man amaguma ko. li ñuy joxe bariwul te ñu bëgg a jot bari. mu indi benn compétition ak benn rivalité léegi nag nga dem yenn saa ci benn maaman mu ni la pour nga jot ci faw nga indil ma ñu xale il faut faw nga indil ma nopp xale il faut nga indil ma yu demee hmm. noonu alors donc bu ko defee te boo ko dee xool loolu yëpp buñ koy pratiquer boo ko dee xool li ko li ko sabab mooy am am fu mu am. moo xam ndombo tànk la moo xam leen mais am-am moom mooy nekk ci moom mooy nekk ci kanam alors que boo dee xool ñu penc bu njëkk. wala prestige am-am. bu fekkee ni jaarul woon ci yoon. nit ñi duñ la jox cër bañ la waroon a jox cër nit ñi lay jox cër. bu fekkee ni sa am am jaarale nga fa nga ko war a jaarale ñu xam ni kii daf koo daf koo ñafe daf koo am daf koo jaarale ci yoon waaw mais léegi bu fekkee ni noo ko amee rek baax na hmm. yow dañuy da leen di leer ni ci ay tappale nga ko amee ñu bëgg la ñu bëgg la jox cër moo tax question de sécurité boo li Charles wax d'accord naa ci boo ko bëggee yamalee ci police ak gendarmerie dafa am ay dimension yu yu yu nga hmm. xam ni dafa gën a dafa dafa dafa yaatu hmm. yoo xam ni euh, encore une fois bu ñuy wax ci euh, planification projection. nga xool booy créer dëkk Mbour am na quartier bu tudd bay dëkk. xam nga loolu moom moo lay wan ni ci aménagement du territoire am na bay dëkk. Euh, euh, nit ñi dañuy ñëw rek fekk ni ñu kii bu ñu dëkkee ba pare nag ñu soog a xool naka la ñuy def. naka la ñuy tegee ah ah te loolu sax déjà sécurité des fois fa fii lu courant yi jaar demal ci suñu marché yi. fiiru courant yi ni ñuy attaché bis bu ne nga gis marché bu lakk après bu ñu xoolee ba ci biir ñu gis ni ñu ni ñu xëccee woon courant beeg la ñuy noonu donc yooyu dafa nekk ay éléments yu nga xam ni dafa nekk éléments yu am solo sécurité ni ko mm. Abraham Maslow di waxee besoin de sécurité nee na gis nga nit ki ni mu bëggee du lekk rek la soxla. Mm. yenn saa yi nga nangoo liggéey ci benn entreprise pas parce que lañ lay fay dafa bëri mais parce que tu te sens en sécurité là mm. bi mooy jàmm bi nga am ak nit ñi. mooy tax nga daal di dal euh, ku mel ni Milan Kundera bi muy bind de l'être nee na gis nga lal mën nga koo bokk ku ne waaye nelaw koo wóolu doom nga ko bokk mais léegi mais léegi professeur de nga baal ma mais léegi su fekkee ne dañuy comme li ñu constaté ni yëpp léegi ñu ne dañ ko bëgg a régler ñu parce que sa biir wax dama ci gis ne souvent benn laxisme dafay am benn laisser ale comme bay dëkk bi nga wax noonu ni ñëpp toog di constaté ne lii jëmul ci jàmm lii di raam ci ñag bi la jëm te bu fa eggee du baax wala lii di ram jëm ci tool bi bu eggee dina ruur léegi finalement su ñuy situer responsabilité yi hmm? léegi nan lañ koy defee ak kan la ñu a interpeller aussi sur sa mission bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne dañu éloigné wu seen mission classique mais kan moo leen ci war a ñan ñoo leen ci war a rappeler. est-ce que foofu amul dysfonctionnement. loolu laa lay wax sànq bi may commencer mhm. la sécurité. et je parle pas de la police en léegi. parce euh, après ma wax la la famille. après ma wax la suñu suñu organisation barabu liggéeyukaay yi et cetera et hmm. donc il faut que bu ñuy wax mbirum sécurité ci approche bi ñu dugal loolu yëpp parce que benn dama la wax encore une fois nit nit dafa am partie bu koy tirer vers mala nga xam ni lu manqué ci leneen luy xeex ak loolu rek mala bi day ëpp doole bu fekkee koom dafa manqué mala bi day am doole bu koom manqué sëñ Moussa mooy wax ñàkk a bon ci waaju baax. bu koom manqué nit ki am problème. ñàkk moo bon ci waaju ñàkk bon ci waaju baax. waaw léegi bu koom manqué bu éducation manqué. am problème éducation waxuma la instruction rek de. Mm-hmm. éducation yar bu manqué mala bi day day dafay yeewu. Mm-hmm. or boo dee xool éducation école ñun daara bi ñu njëkkoon xam bu njëkk bi ñu daan njëkk a yar ci famille lañ daan yare mm-hmm. première école bi ñu am ñun c'était la famille. après la daara alxuraan ñëw daara alxuraan prolongé. Euh, identité familiale yooyu. nga daan bay di napp ak yu demee noonu. après ci la école française di ñëw. mais école française bi ñëwee. bëri na ci lu nga xam ne suñu identité la woon suñu cosaan ak suñu aada daf koo xaw a toxal ah daara moo xaw a téye loolu mais daara bi beneen responsabilité ndax organiser nañ ko façon organisation boo xam ni dina continuer di liggéey ci éducation nam doon yare ak nam doon parce que gis nañu à partir des années 70 avec les cycles de sécheresse que ci la commencé am phénomène daara itinérant daara yu nga xam dañu commencé di jóge dëkk di dem beneen dëkk avant c'était des daara communautaires daara bi ci gox bi leen boo demee Ndar ba léegi da ko fay gis dañ naan la daara Moxsin Diop daara et bu fekkee xam nga Saint-Louis tuuti sëriñ daara ba fa lay mës a nekk fa la fa di di di jàngale di jàngal nit ñi diine boo yaa ngi wax léegi yéen a ngi bokk njigéem mais benn caractéristique u njigéem mm-hmm. mooy ay nit yoo xam ni dañu mm-hmm. dañu parce que man dama liggéey ci séeréer yi ci sama thèse doctorat mm-hmm. dañu dañu dañu dañu téye ci seen aada ak ci seen cosaan mais tey jii boo ko dee xool transformation yi nga am tamit mooy yar bi Mariama ba mi ngi koy bind ci euh, une si longue lettre nee na parents yi léegi instruction la ñu gën a toppatoo ko éducation. plus de savoir que kan moo fi jël boo jëlee sa doom yóbbu ko ci sëriñ daara. Hmm. maa ngi koy wax ci conférence su famille omarienne bi yóbbu ko ci sëriñ daara boo fayee 2000 da ngay jàpp ni kii dafa bëggee. Hmm. doo ko jox dara. dëgg la mag bu nekk mbir na gunaas nee na. Hmm. bu fekkee yow danga nga nekk wéyjur boo xam ne am nga dara waaye xamoo dara. nga jël sa doom bi nga xam ne amul dara xamul dara dénk ko sëriñ daara boo xam ne. xam na dara waaye amul dara te yow jàppale ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara. Mm. jeex na wax mm. euh, ci alors très mm. rapidement rek temps bi daf ñu xaw a dàpp euh, commissaire facteurs yi ñu wax. est-ce que yamba bi bokk ci yenn violence ñuy démb rek jàpp nga yamba. yamba jàppoo yamba démb. non du démb c'était c'était dans la nuit du 19 objection le ah, yamba ne rompt pas violence Charles bu fi indiwaat coowu yamba dimbali ñu rek non il n'est pas médecin il peut pas dire. objection il n'est pas médecin il n'a pas il n'a pas. Charles doo ma jàppale baat bi baat bi il n'est pas médecin il n'a pas la qualité requise. alors c'est vrai que euh, Abdou euh, yamba bi en 30 secondes. yamba bi am na lu. 30 secondes njeexital bu bon a bon a bon ci xale yi. Hmm. ça moom il faut le dire. Euh, effectivement jàpp nañ une tonne cent cinquante kilos dans la nuit du 19 mais li raw ëpp di jàpp. li raw li raw. li raw mooy ëpp parce que di nga jàpp mais am na am na lu ñu rëcc quoi mbuur géej la. Casamance lañ koy jëlee. c'est vrai da leen jën karoon mu ñëw Mbour. te day transiter foofu parce que en réalité c'était destiné à Dakar. Mm-hmm. c'était pour la consommation de la région de Dakar. Ah c'était pas pour Mbour. waxuma la sax waxuma la sax a une idée de la consommation Dakar à l'année. Hmm. loolu nag euh, y a ay statistiques façon yoo xam ne. non c'est important parce que. dina dina dina dina leen. Euh, non non a yóbbu noonu la ko kii. Ah, exactement ñun tey bëgguñu topp dinaa leen bàyyil statistiques yi nga xam ne. Hmm. Euh, saisi yambaay yëpp mi ngi fii. mais mais mais mais c'est des statistiques non exhaustives parce que DSP la. Hmm. occultisme bokku ci yeneen yeneen services yi bokku ci. en plus en plus voilà <laughs> te te moom mooy jàpp lu ëpp voilà mais mais d'espérer que déjà une tonne 150 kilos comme c'est énorme mais mais mais li li tuxum yàmba mi moom cest dire à tout coin de rue da ngay jàpp rek man li may defeere ci ay yàmba kenn xamul et c'est valable pour tous les commissaires mm-hmm. euh, leneen li aussi mooy la drogue dure waaw la drogue dure mm-hmm. ça rend violent l'usage intraveineuse de la drogue dure mais c'est extrêmement grave et puis am na ñoo xam ne sax dañ leen di dañ ñu ngi leen di ñu ngi leen di faj. Mhm. parce que bu ñu lay faj dañuy jox. Mhm. ak mais mais bi ñu jox dañuy dañ koy doser. Mhm. parce que mënu c'est pas sevrage brutal mënu ci am donc c'est mais mais am na ñoo xam ne dañuy nekk ci hôpital di faju mais di di utiliser en même temps di génn di di di ko jël surdosage donc ñooñu loo defar ci suba gi ci ngoon gi ñu yàq ko et cas yi da cee bari alors mais mais mais c'est yu mel noonu nag euh, drogue yooyu mooy expliquer hmm. violence bi bi ngeen di wax léegi nii. alors permettre ma en 30 secondes rek est-ce que ñun tamit ñun ñëpp laay wax presse bi ci boppam ak ñëpp li ci la ñu bokk dans notre langage est-ce que du ñooy favoriser violence. à commencer par parfois nos titres. yow nooy waxee sa kër. Pape Djibril nu ñuy. Euh, hmm. gérer diggante yi buuba. waaw mais bon damay bañ nga tënk ma ci say question yi quoi. Ah, dafa am leneen lu ma bëggoon la <laughs> teel ñu parce que boo commissaire mi ngi wax affaire statistique dama bëgg xam. Hmm. par exemple euh, par rapport ak ak pays dëkku sous région bi fan la Sénégal toll si mbirum violence boo defee comparaison entre ñun ak yeneen dëkk yi je pense que loolu question bu bu am solo la beneen bi mooy ci li ma doon wax pour professeur li ma doon wax au début est-ce que. est-ce que parce que pan boo ma confirmer loolu dina dal sama xel peut-être que aussi je me je me mais est-ce que ak yooyu may wax yu spécifique yooyu nga xam ne Sénégal am na ko. Mm. est-ce que waruñu si mun a baser <coughs> pour consolider un peu. professeur nit ñu nit mais mais absolument loolu nga wax dafa am solo. Euh, gis nga par exemple <coughs> am na ci ay tubaab yu bind nii. Mm-hmm. ñu mel ni ñoom Vincent Montel ñi Sénégal euh, commissaire wax na ko au début ni ceinture de feu li mm-hmm. mais malgré tout dafa mel ni am na une stabilité. Mm-hmm. ñoom ñu bind nii. dañu am ay euh, gëm-gëm dañu am ay aada ak ay cosaan yu mel ni ay kalante euh, yu mel ni ci ay tarixa nga xam nit ñi dañ fay daje ñoo xam ni kii waaso yu bëri quoi dañ fay daje nekk ci benn ëtt euh, di collaborer nga xam ni même bu fekkee ni gan dafa ñëw Evans Pritchard dafa bind dans les Nuer nee na ñun suñu dëkk yi boo ñëwee da ngay nekk mbokk wala nga nekk noonu mm-hmm. parce que boo ñëwee rek dinañu fexe ba boo yoree beneen sant ñu jox la benn sant boo xam ni ñu ni Sissoko mooy Gueye ñu ni xam nga yu Traoré mooy Traoré mooy Diop yooyu c'est des mécanismes d'égalisation comme ni ko Gaston di waxee ba nga xam ni léegi dañ lay boole ci pénc mi yooyu rafet la lii ma sof ci li ciy wax mooy souvent nag yooyu lañ dul wane suffisamment. dafa boo dee xool li ñuy gën a wane mooy souvent aspect yi nga xam ni doxul quoi c'est vrai que war nañ ko wane yi doxul. voilà exact mais li dox dëggantaan man man foofu laa doon waxee mooy que est-ce que xam nga quand même sensationnel bi dafa am. dañ ko nangu dañ ko accepté. Mm. titre bi est-ce que parce que zéro violence zéro meurtre wala dara amul fenn. Mm. maintenant ma ne moo tax ma ne nañ ko teg quand même ci balance ñu xool exactement fan la mbir mi toll parce que aussi des fois. di di wax si dara loo xam ne peut-être eggagul foofu ça peut même. man man mii di wax ak yow encadré naa ay étudiants américains. yoo xam ne dañuy ñëw di gëstu. parenté en plaisanterie ak cousinage en plaisanterie. Mm-hmm. parce que dañu ni modèle boobu la ñuy jéem a xool ñoom seen quartier yooyu ñu bokk. Mm-hmm. naka la ñuy jéem a def ba appliquer ko. Mm-hmm. parce que gis nañ ni nit ñi dañu tëju. Euh, yenn saa yi mu am ay jafe-jafe. kenn ñemewul kenn léegi nag dañu bëgg jël modèle parente à plaisanterie parce que gis nañu lu rafet la lu jekk la naka la ñuy mën a def ak yan voie la ñuy xool ba dem appliquer foofu mais pour ñu mën ko appliquer il faut ñu xam histoire am ñun nan lañ koy pratiquer fii et et cetera nga xam ni euh, joolaa il est impensable que mu laal séeréer. Mm-hmm. Euh, nga xam ni yu demee noonu. yu façon yu rafet yooyu mu ñu ni ñoom naka la ñuy def li ma bëgg a wax mooy foofu l moom la Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax Tumranke. nee na tumranke ma ngay tàmbali ba nga xeebee sa bopp yow ba nga amee lu rafet ba pare daal di jàpp di lii soxlawu ma ko Joseph Kizerbo tuddee ko la naat des autres mm-hmm. nee na bis boo bàyyi sa basang mm-hmm. dem ci basangu jàmm mm-hmm. place ba gën doo fa toog bu ko defee nga gedd dem di seetiwaat sa basan am ku la ko gën a soxla jël oh, oh, oh, maintenant nag basang yi mi ngi yàqu te am na la a poser ñoom ñaar question pour le commissaire waaw statistique ah oui d'accord par wax dëgg yàlla buba c'est pas de l'autoglorification mais mais Sénégal moom moo tane pays yu bari. man man man man am naa chance su dem ci pays yenn yooyu. surtout dans la sous-région. coordonné naa également benn mission de simulation d'attaque terroriste d'abord de trafic international de drogue dure d'attaque terroriste au euh, Radisson Blu en passant mm. par des échanges d'armes à feu au Mali et cetera et cetera j'ai visité ces pays-là mais euh, dispositif yi ma gis ci yenn pays yi sax euh, yi ma gis fii gisuma ko foofu Euh, donc vraiment bo bokkul sax. et puis am solo terrorisme. et puis et puis et puis et puis quand même ñun terrorisme. quand euh, même yàlla ñu ciy sutural mm. alors que feneen am na fa mm. te yooyu xeetu violence yi gën a bon la defe mm-hmm. euh, di ko waral nag c'est parce que quelque part am na lu fi ne mm. loo xam ne mu baax mu bon ñu ngi ci jàpp di doxal te je pense que bu bon bu bonoon euh, Sénégal yàlla du ko àppale waaw mooy par rapport à Papis Diaw s'il te plaît waaw man du question même si may la pression rek am benn côté boo xamante ne lu mu bëgg rek si loolu rek day dem quoi dama dama déglu benn benn psychologue euh, bu doon ñëwaat di commenter sur un grand criminel boo xam dafa rey jabaram doomam rey yaayam rey papam euh, muy expliquer c'est dafay dafay concorder ak li li li professeur di wax parce que si mooy démission parent yi man foofu lu mu tax ma convoqué illustration euh, bi dafa expliquer scientifiquement que li koy indi mooy xale bu nekkee xale lépp dañ koy dañ koy lu dañ koy jàngal lu moi mooy man-man li mu bëgg lañ koy defal euh, lu mu xalaat dañ ko si bàyyi genre def ko benn genre ñu koy waxatee nga nga choyé ko ba mu ëpp ba nga xamante ne moom lay bëgg di exprimer li muy bëgg loolu lay créer euh, cette histoire là en fait en fait psychologue ko expliquer c'est-à-dire mm. que daf koy màggaale dem ba am suffisance doy boppam am rupture ak mm. autorité bi pour moom papa ak yaayam mu ngi koy wax après amul sens parce que il est même plus important que ses ses loolu mooy débouché euh, très yooyu moo tax ma ne ñun à notre niveau ñun en tant que pays africain en tant que sénégalais par rapport à nos cultures ñun je pense que le soubassement le départ de la résolution du problème c'est de revoir l'éducation pour moi fondamentalement ensuite on doit associer les forces la police euh, l'encadrement et tout mais la base c'est le soubassement doit être changé très rapidement pour le pour le professeur ak le commissaire euh, léegi mooy yooyu bu ñu jëlee deuxième suñu ndaw yi dañu génn je sais pas combien de centaines de milliers si c'était des centaines de milliers hmm. génn pour dem accueillir lion yi man analyse bu mu fi defoon euh, du mu ko fi wax mais yéen ban analyse ngeen si defoon quand les centaines de milliers de lions sont allés chercher des gens qui n'étaient pas des champions est-ce que vous l'avez analysé dañ ma mës a question ni ma lu tax euh, xale yi bu ñu defee compétition comme nawetaan yi bu ñu leen gañee ñuy génn di sànni xeer di xeex ma ne mën ku ku ñàkk ba pare kontaan baaxul ku ñàkk ba pare kontaan baaxul euh, ki ñàkk dafa war a mer mais après mer bi nag ban attitude la war a am donc il faut nit ki euh, di xaw a aussi am euh, attitude ni man mer naa lii neexuma mais émotion bu bu bu ëpp yenn saay du baax li ma gëm bu fekkee ni ci sport bi lañ ko delloo moom mooy que quelque part culture de la gagne il faut ñu def ko ci suñu suñu bopp mm. parce que mënoo kontaan mënoo mënoo mënoo ñàkk. te waroon a gagné. parce que amoon nga toutes les conditions ont été réunies pour nga gagné. quelque part aussi il faut ñu inculquer suñu ay jeunes la culture de la guerre. mais est-ce que c'était pas une expression d'une violence. moom laa lay wax c'est que dina dina dina xam nga sànq bi ma la waxee ne. Euh, bu ñuy def ay combat de bu amoon bu amul woon euh, bu eh, ci dëkk bi. il faut làmb. Hmm. bu amul ci dëkk bi boxe. Hmm. ak ay arts martiaux et cetera. dina waa ak football bi dafay graaw trop. parce que dafay am li nga xam ne dañ koy intérioriser. loolu la ñuy wax catharsis. Hmm. gis nga buuba waxuma la buuba bi de. mais mën na nekk opium mën na nekk opium aussi. <laughs> nee na mën na nekk opium. mooy mën na nekk opium bu fekkee ne dañ ci manipuler nit ñi. Mhm. bu fekkee dañ ci manipuler nit ñi. su fekkee ne loolu mooy su fekkee ne euh, par exemple bu si on reste sur ci jeunesse bi euh, su fekkee ne xamoo noo koy def. su fekkee ne bari na. su fekkee ne ñoo ngi wut seen bopp ñoo ngi chercher seen bopp ñoo ngi nekk ci quête de sens. Mhm. waxuma la sax ay wut liggéey yooyu. Mhm. waaye nekk ci quête de sens parce que fi erreur bi ñuy def souvent ci approche mooy dañoo jàpp ne jeunes emploi. mais am na leneen lu ñu soxla xëy na ba ñu amee emploi ba pare donc bu fekkee ne euh, instrument yooyu noonu muy sport bi muy yeneen yi dañ koy utiliser aussi pour pour pour pour régler ci ay problèmes peut-être que dañ koy déplacer. dans ce cas manipulation lay. voilà est-ce qu'il ah, mais alors mais catastrophe boobu ngay wax koy utiliser comme <laughs> instrument de socialisation. instrument de socialisation. Euh, sport euh, beneen kii bu mu mënti doon. Mm-hmm. nan nañ koy utiliser comme instrument de socialisation loo xam ni dafay bokk ci defar. Mm-hmm. jikko nit ji nga perte xam nooy perte nga gagné xam nooy gagné. Mm-hmm. nga match nul xam nooy match nul. mais est-ce que ça socialise est-ce que tey jii socialisation bi warul woon na nekk tey benn liggéey boo xam dafay am en amont am pendant ak après ñoo xamante ni xëy na. ligg seen liggéey loolu lay nekk la gestion par exemple de la défaite mm-hmm. yaa ngi dégg est-ce que ñu am ay canaux yu leer yoo xamante ak ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo war a gérer loolu mm-hmm. et qu'on évalue aussi mm-hmm. absolument ah. alors euh, pour terminer rek commissaire moo wax ah, ci loolu waaye am fa mais kii défaite li je que yi professeur bi li mu ci tontu euh, mais mais li ma ci mën tontu rek euh, il faut refuser d'être bon quand on peut excellent ayca euh, euh, dernière question ñoom ñaar bu dee xëy na yéen bëgg ngeen ci wax mooy les enfants de la rue ci lañ waroon bokk mais waxtu wee ñu tënk taalibe compris dedans léeg-léeg gis nañ ni ñoom it ci ñuy malheureusement ñàkk seen bakkan ak ñu ñuy mettital lañuy ñuy doon est-ce que le retrait pur et simple n'est la solution aussi pour ñoom et boobu état moo ciy taxaw xaw ma camp lay ubbi xaw ma centre lay doon képp kuñ ci jël yóbbu foofu ba ñu mën retrouver say parents et puis que les parents aussi yi bàyyi noonu livrer à eux-mêmes leurs enfants à sanctionner waaw xam nga. Euh, commissaire oui euh, moom mu jël. waaw commissaire comme maa ko mag moom grave. <laughs> waaw léegi dama la wax ni la. problème mu enfant de la rue. Hmm. mi ngi tàmbalee bu fekkee ni mën nañ koo dater dans les années 70 avec les daara itinérants ñu nga xam ne dañu doon déplacé wu ci dëkk dem ci beneen dëkk yóbbaale xale yi léegi à partir de ce moment là nag. amatul contrôle communautaire surveillance communautaire bi amatul ko ci sëriñ daara bi ñenn ñi mënoon lañ jël xale yi jamono jooju di leen yalwaanloo mais boo ko dee xool même jamono jooju xale yi boo leen doon gis ci benn bi dañ fay nekk pour benn instant rek nga leen di seen après ñu ñëwaat parce que añ lañ doon yalwaan wala yu deme noonu après mujj gi nag affaire bi nekk benn genre commerce hmm. nekk loo xam ne euh, ñun def nañ ci benn étude laaj xale yi ñu fekk ci mbedd bi ñuy yalwaan hmm. ñu laaj leen lan bëgg a nekk benn xale tontu wuñu ci ni bëgg naa nekk comme sama sëriñ ñi ci ëpp 98 pour cent liñ ñu tontu mooy apprenti car rapide la ñu bëgg a nekk. Oh. parce que xam lan moo parce que apprenti car rapide moo yore xaalis pièces yooyu mu yore ñoom moom la ñu gis foofu la seen foofu la seen univers yam alors donc je je <laughs> parce que ci dafa am ñoo xam ne dañ leen di sas te ñu war a ñëw. Mm-hmm. indi indi si affaire boobu. versement quoi versement boobu. par jour vendredi ñu doubler wala ñu tripler versement bi parce que vendredi moo gën a dox. alors léegi nag li ma bëgg a wax foofu mooy. am na ku ko fi wax sànq xaw ma kan la mooy ñun suñu suñu passivité ak suñu responsabilité. parce que ñun ñooy sarax xale yooyu aussi. Mm-hmm. Aminata Sow Fall bi muy bind la grève des battu loolu la doon wax nee na bis bu taalibe yi toogoon grève grève des battu seen battu yooyu ñuy jënd ñaan bu ñu ko téewoon grève nee na bi am problème. ils l'ont même fait. <laughs> parce que ñun foog nañu lu ñu moo la koy kii. voilà dëgg la <laughs> à ce propos vous êtes souvent confronté da ngeen di jànkonteel yéen nag. mais évidemment mais mais man jàpp naa ne question bi pour régler ko. il faut une vision holistique. Hmm. parce que c'est un problème global. il y a beaucoup de goulot d'étranglement. du décision at ne rek muy ñëw ñu décider légiférer là-dessus te daf amul une concertation au niveau national. Hmm. parce que bëri na ay goulot d'étranglement qu'on le dise ou Euh, li ma ci gis mooy état sax amoon na déjà des ébauches de solution yu ci amoon. Mhm. parce que am na un projet de décret ou de loi sur le statut des daara au Sénégal je pense que c'était en 2002 ou en 2010 euh, la même réalité juridique amoon na également par rapport ak les talibés carrément. Mhm. mais à chaque fois gis ngeen ne. Euh, mbir la moo xam ne yëkkati ko. mu sotti yombul. Mhm. moo tax nag il faut mu laaj ñëpp nag béy ci seen laaj. parce que il faut ñu mettre l'intérêt de l'enfant au devant de la scène ñi ko war a comprendre lépp comprendre ko moo xam chef religieux yi la moo xam euh, borom daara yi la moo xam pere de famille yi la. moo xam moo xam moo xam ñoom ñëpp ñu xam ne. mais commissaire doguma la mais amuloo impression que par exemple euh, discours bi nga def nii. que depuis dix ans ñu ngi koy wax. plus de dix ans pour plus de non dama bëgg a wax que ni en lii nii dañ koy wax. booba li muy wane mooy yombul. waaw mais non mais yombul non dama ne. yombul mais mais non dégg ma ne bu doon y a ans dañ doon wax. que ni léegi ñi ci des war nañ leen fi génne ñu ne au moins am na benn part te boobu defe naa discours bi benn moment il faut même qu'on qu'on aille beaucoup plus loin euh, ne rek la bi dafa c'est c'est vrai c'est compliqué mais man bi ma xamee xamee ba léegi ñuy wax c'est compliqué. mais nag mais nag am na organisation bu énorme bu am. ci biir euh, gis naa ay privé yoo xam ne. ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib. ci biir ci biir am na ñoo xam ne ñu ngi récupérer xale yooyu. oui mais c'est ubbi leen ay centre mais c'est rien par rapport ak. oui euh, évidemment c'est c'est quelque chose parce que. au moins génnee fii rek yaa ngi yem ci oui na am dem nañu ba léegi ñu ngi jàng dem nañu ba léegi nekk ay ay ay. mag jëm euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mais man man question ma lay laaj mooy bi ñu euh, décision ne dañ leen di retirer est-ce que woon nañ leen ci processus boobu impliqué nañu nañu naturellement parce que euh, ñun on est des exécutants. yéen ban responsabilité ngeen am. non mais ban ban ban responsabilité ngeen am lan lan moo ci nekkoon seen niveau de responsabilité. non à part ñu bett dans les voitures. non ñun amuñ ci benn niveau de doon ñëw rek jël dugal. ci amuñ ci benn niveau de responsabilité. c' est des c' est des décisions en fait c' est des instructions qu' on exécutait sur le terrain. léegi nag léegi aussi am na beneen question boo xamante ni kii posé na ko par rapport ak trafic mm. international bi parce que porosité frontière yi aussi. Mm. dafa nekk mm. loo xamante ni ñu ci bari dañuy wax ne hmm. jóge wuñu fii hmm. jóge dañuy leen di jële feneen indi leen fii wala sëriñ daara bi bu ñu defee prolongement mm. souvent on trouve mm. quelqu'un boo xamante ni qui vient d'un pays voisin en 2014 42 pour cent des enfants de la rue selon Human Rights Watch venaient des pays limitrophes voilà mm-hmm. alors commissaire commissaire tàggool jeex <laughs> sama patron nee naa arrêté Pierre Da Silva li ngay bañ nee bu may wax turam <laughs> mais fi Selek Thiadiaye moom amul enfant de la rue euh, gisuma ko fa <laughs> ñu tàggoo ñu tàggoo commissaire di di kontaan vraiment ci ci émission bi ak surtout pertinence su idées fi développé yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu Malal également ak Birima bi nga xam ne fekku ma ne. les absents les absents voilà merci. Birima mi ngi Saint-Louis Malal Malal man. Allemagne la fi daal non non non. non non non bàyyi non non bàyyi non bàyyi foofu man yoo daal mais d'accord mais bàyyi non non non c'est ce qui est donc chaque li li parce que damay damay ragal bu dee bu dee Chine la dem. Ah. bu ñëwee di def jàkkaarloo. mais coronavirus exactement. papis Chine la bu dee Chine la dem moom bu ñëwee. booba man France France ma maa ngi dem Allemagne. demul Fouta léegi nag fan la dem. Fouta Fouta la dem Fouta. Euh, euh, on le met bu dee Chine nga dem moom doo fi dellu si. alors professeur nga tàggoo yow it ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw euh, jërëjëf maa ngi rafetlu bu baax a baax sama participation fii li ñaan yàlla rek yàlla def jàmm def sécurité parce que comme ni ma ko waxee sànq rek moom sécurité bu fekkee ni dafa manqué léppay sooxe. koom-koom borom bitig yi 19h ñu tëj seen boutique. ñi jigéen ñi nga xam ne dañu euh, am njàmbaarte ba dee 4 heures du matin ñi ngi ci tali bi yore seen dàmba di dem di wuti jën duñ ko ñeme. jaamu yàlla doo ko mën a def. Mm. gée doo ko professeur léegi gars yi ils attaquent le jour hein. Mm. oui oui ah, loolu dafay ñëw gën a aggraver ah, la situation moo tax kon ñu war a gën a góorgóorlu. Mm-hmm. vraiment gën a jàpp suñu sécurité euh, gën a lënkaloog. force de sécurité et de défense. jëf ni ñoom pour ñun la ñuy liggéeyee. ñun tamit ñu nekk di liggéey ak ñoom mu nekk en parfait intelligence je crois que loolu buñ ci taxawee. mën nañu def ay jéego yu am solo ci biirum sécurité. ñu félicité ko moom tamit euh, ndax ni ñuy wax bu ñu defee seen liggéey ñu rafetlu ko. Mm-hmm. ni mu gérer problème bi amoon mbuur mm-hmm. te yàlla mujj def jàmm alors que c'était très grave mais moom mii moo ko géré ba finalement euh, mun nañ ni yàlla yàlla def na ci sutura te munoon na demee neneen ndax ay gànnaay lañ yore yoon euh, am nu mu demee géré na ko ñu ko ci. c'est un bon euh, ñu seedeel ko.